te ñu di ko amal dimanche ñu jot bu 22h jotee mbokk yi nu am mbégte àndaat ak yéen ci jataay bi ginnaaw bu ñu sante ci jataay bi weesu woon te ñu ci doon fàttaliku kenn ci taalibey Sëriñ Tuubaa yi doonoon jàmbaar ju liggéeyal am réewam waaye liggéeyal ab dëkkam liggéeyal ab tarixaam mu di alxaaji Babacar Kebe Njuga yàlla na sun borom doole ay leeram mbokk yi tey ñu amaan mbégte àndaat ak ci jataay bi fii ci jumaa ju mag ji nga xam ne moo nekk ci dëkk bu tedd bii di dëkkub Seexuna Ahmadul Xadim di Touba ànd ko ak waa daayira Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne sëriñ Afiya Buso moo ko jiite ci ndigalul sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa ak kilifaam yi ko fa jiitu woon ñaan mbégte di ñaanal sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa xalif général des mourides yàlla na ko fi sun borom gën a yàggal te gën a dolli ak wéram Euh, te wërale wëralal ko mbooleem njaboot gi ko wër ñëpp ci barke naa Ahmadul Xadim mbokk yi ñuy waajal weer wu tedd di waajal weer woo xam ne sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul daana ko gàttandu di weer woo xam ne itam suñu borom digg ci ay tuyaaba yu bari yoo xam ne mën nañ koo tuddee mu di weeru promotion loolu nag ku ne xam ne ne taxawaay bi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma dana ko ci amal at mu jot te seen yëngutu yëpp kenn xam ku ne xam ne nag génnut social te mooy ñaanu Serigne Touba gi nga xam ne moom la ñaanoon na ko sun boroom na nga def may mbégum ñi nga xamante ne bii amuñu ndey amuñu bàyyi sa suñu ci kenn loolu mu xadamatul xidma di ko taxawee waxtu wu ne fii ci jumaa ji ñuy dëgmal koor gi nag ñu daje ak ñoom ngir waajalaat nag taxawaayu tedd yooyu nga xam ne daan ko amal ci weer bi ci lépp jëm ci berndeel weer wi ay ganam yi nga xamante ni bii ñoo ànd ak moom ci ay bëgg-bëggam ndax weer wi lim gën a bëgg mooy ku ko woor ci jaamu yàlla woor ko ci saw làmmiñ woor ko ci say jëf woor ko ci sa lépp wool loolu mooy li nga xam ne moom la weer wi bëgg te moom la ko Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul daan defal ngir mu yomb loolu nit ñi nag daayira Muxaddamatul Xidma fas yéene taxaw di leen wutu ci coono yi nga xamante ne bii war nañ koo toggoo ci bu dog jotee ñu leen koy amalal fii ak la nga xam ne dana ko gunge te moo di ay waxtaan yu am solo yu leen di nàmmaat ci seen diine waaye di leen gën a xamal fi ñuy teg seen tànk loolu moo tax ñu ngi toog ak sëriñ Abdou Lahad Bousso Maxtaar mu féete ci sama càmmoñ di secrétaire généralu daayira bi incha allahu rabbi mooy ki ni njëkk a jox kàddu ngir mu liir rapport bi nga xam ne defoon nañ ko daaw ci liggéey bi moom li nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu social ci moom lay jaare waaye mu feggoo ci sama loxol di joor sëriñ Abdou Lahad Boussa Thierno mi nga xam ne moo yëngutu ci wàllu commission culture te loolu mooy li nga xamante ne bii mooy bànqaas bi ci ëpp doole mu noppee nag sëriñ Maxtaar Kan moo féete féetewaat ci sama loxol di joor moom itam yor lépp lu jëm ci wàllu organisation bi kon ngir bañ a guddal njëkkante ak waxtu wi damay bàyyi sëriñ Abdou mu nuyoo ak mbooloo mi ñëwal ñu directement ci rapport bi nga xamante ne bii def nañ ko daaw ñi dugaloon seenu ñaq ci liggéey bi xam ne seen ñaq wañ dugaloon fii lañ leen ko tàbbalal bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahabatihi alwarri bi ihsanin ila sëriñ Fallou ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu mbokki jullit yi ñuy seetaan ak fu ñu mën a nekk ci àdduna bi di leen ziyaara bu baax waaye ñu jël suñu nuyoo ak seeni nuyoo yépp ak sunuy ziyaar ak seeni ziyaar di ko jagleel sunu kilifa gi nga xam ne mooy suñu yaakaar tey ak ëllëg bi ak Cheikh Mouhamadul Muntaqa bi nga xam ne moo toogee jataayu xaadimu rasul di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér Euh, ba mottali mbooleem ay yéeneem ci liggéeyub Serigne Touba te nu ànd koog moom di nuyu it njabootu Serigne Touba gépp waaye di nuy kilifa yi diine yëpp yi ci réew mi yëpp di nuyu itam kilifa yi nga xam ne ñooy kilifa yi yi ak kilifa réew mi bàyyiwuñu kenn di yëkkati sunu kàddu nag ci tuuru kilifa ak daayiratu Muxaddamatul Xidma muy Serigne mi nga xam ne moo ko jiite ak bureau exécutif bi nga xam ne ñoo yore doxinu liggéey bi. ngir tënk nag ci ni mu gën a gaawee rek ni nga ko waxee léegi Sëñ Fallu liggéey bi day liggéey boo xam ne day gën di jëm kanam di gën di dox at mu ne muy yokk gis nañ ne daaw liggéey bi am na solo lool yaatu na lool rëy na lool liggéey bi nag dafa séddalikoo ci juróom ñaari commission yoo xam ne ñooy liggéey ci biir koor gi yu bokk ci daairat muqaddamatul xidma mm-hmm. juróom ñaari commission yooyu ñu ngi tënku ci secrétariat général bi ak commission organisation ak commission sociale ak commission culture commission communication secrétariat administratif ak commission finance secrétaire général bi mooy coordonné lépp lu jëm ci wàllu liggéey bi lu ci jare yokk ñu yokk ci lu ci jare ñu ñu jubanti ko ci ak taxawaay bi yëpp team commission yëpp di saytu seeni liggéey di ko nos kon mooy coordonné liggéey bi yëpp commission sociale mooy yore lépp lu jëm ci dimbalante ak jokkale ak bi ak yeneen mbooloo lu jiitu koor gi it ñooy dem ci sëriñ bi sàkku fa ndigal yeesalaat mu yeesalaat ndigalu liggéey bi ñu war a wéyal loolu muy taxaw itam ci ay ndimbal yu am solo yoo xam ni sëriñ Abdul Ahad dana ci xëy na dana ci ñëwaat yoo xam ni daf koy jëme ci jullitu yàlla yi nga xam ni ñoo nekk ci jumaa ji di ko taxawoo ci fànn yépp nag ndimbalam dana fa àgg donte xëy na fa ko bëgg a yóbbu àggagu fa waaye yéeneem ak pas-pasam ak fi dooleem toll dana fa ànd ak ñoom euh, daana amal sax at mu jot benn consultation boo xam ne dafa daan defal waa jumaa ji waaye dem na dafa dem ba def lu gën a yaatu loolu léegi dafa ubbi benn poste de santé ci biir nga xam ne euh, ajjuma yi ak xew-xew yu mag yi ak jamono yi ñuy liggéey yépp day am ay docteurs yu fi nekk di ko di ko di ko taxaw muy infirmerie boo xam ne bu bu bu am solo la bu am matériel bu yaatu la kon commission euh, sociale taxawaayam jëm na ci fànn yooyu mooy ay dimba dimbalante ak jokkalante ci daayira bi waaye ak taxawu nit ñi itam ci wàllum paj naka noonu itam am na commission boo xam ne commission culture la sëriñ Abdou Lahad mi moo ko jiite moom it xëy na dana ñëw ci ay taxawaayam waaye li ci ëpp solo mooy danañu amal ay waxtaan yi diine yu am solo ci koor gi waaye danañ defit ay formation yu am solo ci ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu diine ñu mel ne jumaa yi ñi ci nekk di noddukat yi di former ay imam di forme it ñi nga xam ne ñooy waajal wooy dawlu yi di leen taxaw taxaw yu am solo kon moom itam liggéeyam liggéey bu yaatu la di amal ay waxtaani diine ci koor gi di amal ay waxtaani diine itam ci màggal Tuubaa gi di amal ay émission yu am solo yoo xam ne itam ñi ngi koy def ci jokkalukaay yi ngir yee nit ñi ak di leen tontu laaj laaji diine yi nga xam ne moom la ñuy faral di def daaw ci biir koor gi amal nañ lu toll ci ñaar fukki waxtaan ak juróom-ñeent yoo xam ne amoon na ci biir ñeent yoo xam ne ay laaj ak tontu lañ yoo xam ne tontu nañ ci li toll ci ñaar téeméeri laaj ak juróom fukk yu jëm ci wàllu diine <coughs> amaloon nañu itam ay conférence yoo xam ne ay thème la yoo xam ne tolloon na ci fukk ak juróom-benn ak ay jàngale ay bunt yu diine yoo xam ne dañ ko war a xam jullit ñi war ko xam muy bunt yoo xam ne fiq am na lu mu ci jàngale ñu leeral ko loolu amoon nañ ci lu toll ci juróom-ñeenti bunt yoo xam ne jàngale nañ ko jàngale mu leer ci biir jumaa nañ ay kayitu yoo xam ne day xamle waxtaan waxtu doog yi ak waxtu euh, xëdd yi lu toll ci juróomi junni tasaare ko ci ñi nga xam ne dañ koy soxla ndax dëkk bi yaatu na yaatu goo xam ne léegi doonul ne fépp ñooy dégg jumaa ji waxtu wu nekk mm-hmm. ndax waxtu woowu it xëy na léeg-léeg fajar gi mooy gën a yaatu ci dégg bi waaye tamit kii day fekk nit ñi di wàcc coow li day bari son bi fa mu war a àgg du fa àgg tax nañu yaataloon liggéey bi ci fànn boobu euh, daanañu amal itam comme niñ ko waxee léegi waxtaan yu am solo yoo xam ne moom lañ daan def ci biir koor gi commission communication mooy yor lépp lu jëm ci wàllu jokkaloo gi maanaam xabaar yi bi nga yi nga xam ne ñi ngi koy def ci biir jumaa ji nu ñuy def ba mbooloo mi jot mm-hmm. yooyu yëpp itam ñu ko doon jàllale ci site bi nga xam ne mooy situ jumaa ji waaye doon ko jàllale ci Lamp télévision doon ko jàllale itam ci yeneen télévision yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi waaye làmpal Fall nag dañ ko ciy beral mention spéciale ndax moom bu koor gi tàmbalee ba ba muy jeex waxtaan yi bis bu set daf koy def direct waaye itam nag naafile gi nga xam ne moom la ñuy def fii it daf koy def direct bés bu ne loolu nag ñu ciy sant tàmbalee ko ci kilifa gi Serigne Aliou Thioune ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la seqal liggéey bi ñëpp noonu la ñu koy defee ci télévision bi it noonu la koy defee ci rajo bi kon moom it ñooy liggéey ak waa communication liggéey bu am solo communication it euh, doon defaroon nañ benn documentaire boo xam ne dañ ci xamle liggéeyu koor gi wane ko ci muy tënk bu gàtt boo xam ne tasaare woon nañ ko ba ñëpp jot ci euh, am na yit commission bu tudd commission euh, secrétariat administratif moom lépp lu aju ci bind ak document ci daayira bi ñoo ko yor ñi fi indi ay barkeelu ñëpp ak lu ñuy bari bari bari bari te lim bu bari la danañ ñëw tuuti ci kanam bindal nañ leen ay lettres tontu ñoom ñëpp waaye itam euh, rapport yi nga xam ne moom lañ doon def ci koor gi itam par fukki fan yu ne doon nañ ko tënk di ko dajale ba rapport boobu moo jur rapport bi bi ñu tim tey ji ñu lu am solo ci liggéey bi euh, ak commission bu mag nag boo xam ne mooy wàllu organisation ñooñu doon nañ liggéeyloo daaw mbooloo mu bari moo xam ne tolloon na ci juróomi téeméeri nit ak fanweer ak juróom ci ay góor ak jigéen yoo xam ne six heures ci suba lañuy tàmbali liggéey bi ba vingt trois heures ci guddi diirub weeru koor gi mm-hmm. ba mu jeex ay jàmbaar yoo xam ne dañuy bàyyi seeni kër bàyyi seen i yitte laxasaayu féeteeg Serigne Touba ci jumaa ji di fi liggéey liggéey bu am solo di ko taxawal jaamu yàlla yi nga xam ne ñoo fi nekk di war fee ak ñi nga xam ne ñoo fi naafila muy mbooloo mu takk moo xam ne toll na ci juróomi téeméer ak fanweer ak juróom yoo xam ne dañoo seddalikoo ci ay kuréel yoo xam ne xëy na sëñ Maxtaar dana ñëw léegi ci détail bi ñooñu itam euh, yaatal nañ liggéey bi lool daaw ndax fi mu doon yem yokk nañ ko ba mu gën a yaatu mbooloo mi gën naa yaatu bu baax a baax daan nañ taxawu lu toll ci waxtu dog bi rek lu ëpp ñeenti nii nit daaw sax xam naa ci mujj gi dem nañ ba mat juróomi junni nit ndax mboolem li yokk jumaa ji la ko tàmbalee ci koñ bu féetee kër Sëñ Fallu ba ci koñ bu féetee kër Sëñ Saliou lépp fees na mu mel na nag daaw ñiy jàpp ci liggéey bi bari nañ lool xam naa du ñàkk xëy na bu ñu egsee ci kanam dana am ñoo xam ne dana xëy na du ñàkk mu fésal seeni seeni tur muy ay mbooloo wala ay daayira wala ay benn benn kilifa yoo xam ne taxaw nañ ci taxawaay bu am solo waaye li am solo rek mooy fukk ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak benn joxe nañ ci barkeelu ñetti téeméer juróom-benn fukk ak benn yooyu nag am na ci ay nit ñoo xam ne ay kilifa lañu yu ci bokk am na ci it ñoo xam ne kenn xamu leen ndax nangu ñoo joxe seen i am na ci it ñoo xam ne loo xam ne ay daayira la am na ci loo xam ne itam ay fédération daayira la am na ci loo xam ne ay société la mboolem xeet yi nga xam ne ñoo ñoo ci jàpp ñëpp daal kenn ku nekk. lam ci ak lam ci joxe lépp rapport bi tënk na ko waaye suñu boolee ñoom ñëpp la ñu joxe mu teew mu ñëw fi ci xaalis loo xam ne xaalis la moom liquide toll na ci cinquante six millions quatre cent treize mille deux cent cinquante francs cinquante six millions quatre mille deux cent cinquante francs euh, ci loolu dafa am ay support yu mu doon jaar benn bi mooy opérateur économique yi nga xam ne ñoo tàmbali woon liggéey bi te ñooñu ñii coordonné liggéey bi doon sëriñ Moussa Mbaye ak sëriñ Bara Diop ñoom li jaar ci ñoom toll na ci million 17 millions 979 mille am na loo xam ne dafa jóge bitim réew te sëriñ Assane Diop euh, di ku jàmbaare ci liggéey bi euh, ku farlu ci coordonné liggéey bi ci Afrique ak ci Europe nangu cee sonn lool moom itam li jaaree ci moom ñëw fi tolloon na ci sept millions neuf cent trente quatre euh, sept sept millions vingt treize mille quatre cent soixante dix sept millions quatre vingt treize mille quatre cent soixante dix Amérique am benn fondation Muqaddimatul ma bu jàmbaare boo xam ne seen liggéey dafa séddalikoo ci entretien jumaa ji am itam loo xam ne day jëm ci koor gi am it loo xam ne day jëm ci màggalu Tuubaa waaye ñoo li jëmoon ci wàllu koor gi daaw tolloon na ci cinq millions cent trente trois mille quatre cent soixante euh, foofu nag dañ leen di beral ngërëm bu baax a baax ndax ñoom seen liggéey at mu jot dañ koy teel a waajal bu koor gi tàmbali rek tàmbali nañ mën naa wax ne fii mu toll nii rek tàmbali nañu yónnee seen addiye mu jëm ci koor gi te balaa koor gee am fukki fan wala fukki fan ak juróom dana fekk li war a indi lépp ñu andi ko kon ñi ngi leen sant bu baax di leen gërëm bu baax a baax a baax xëy na du ñàkk sëriñ Abdou Lahad dana ci gën a dolli ko dolli ay e, kàddu yi ci am solo ndax am na itam e, loo xam ne waa Europe ñoo koy def muy waa Espagne mu toll ci deux millions cinq cent yoo xam ne dañ koy def sociale moom bokkul ci financement bi bokkoo gi waaye dañ ko defoon social sédd wër séddali ko ñi nga xam ne ñoo amee liggéey bi ci jumaa ji fu mu war a àgg rek àggoon na fa kon bu ñu boolee li jóge li jaare ci daayira bi yëpp day nekk ak euh, te jóge bitim réew day nekk douze million deux cent vingt six mille neuf cent trente cinq douze million deux cent vingt six mille neuf cent trente cinq mm-hmm. li jaare ci daayira bi te jóge ci biir réew mi muy daayira yi muy société muy muy muy muy nit ñu baax ñi nga xam ne dañoo jël seen barkeel di ko fi andi muy membre yi daayira Muqaddamatul Xidma yi seen bopp mu yeneen kuréel yi nga xam ne dañuy liggéey ci jumaa ji yépp li ci li ci jógee toll na ci mu moom itam vingt six million vingt six million deux cent sept mille trois cent quinze vingt six millions deux cent sept mille trois cent quinze su ko defee day mel ni li jaaree ci juma ci daayira bi ñëw ci biir liggéey bi ci wàllu xaalis toll na ci trente huit millions quatre cent trente quatre mille deux cent cinquante li jaaree itam ci opérateur économique yooyu mu tuddoon léegi di sëriñ te sëriñ Moussa Mbaye ak sëriñ Ba Bara Diop coordonné ko toll nañ ci dix sept million neuf cent soixante dix mille soo leen boolee ñoom ñëpp mooy lañ njëkkoon a wax di cinquante six millions quatre cent treize mille deux cent cinquante loolu mooy li nga xam ne. moo fi ñëw ci wàllu xaalis waaye itam ni fi xaalis di ñëwee ni la fi matériel di ñëwee lu mel ne ay suukar lu mel ne ay tàndarma ak yu ni demee yooyu bu ñëwee dañ koy xayma ci xaalis loolu li fi ñëw daaw wala wala mu toll na ci quatorze millions sept sept cent quarante deux mille ci matériel maanaam matière diggante suukar café meew tàndarma nangam lu fay indi rek donte benn doomu tàngal la dañ koy estimer na mu toll ñu bindaale ko. loolu toll na ci quatorze millions sept cent quarante deux mille euh, li fi ñëw ci mburu daaw mburu ndax mburu day la am solo ci waxtu ndog te mën a yaatu lool ñaari xeet moo fi ñëw lii dañ ko jënd lii dañ ko joxe addiya liñ joxe addiya toll na ci vingt cinq mille huit cent vingt quatre baguettes ñaar fukki junni ak juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ci ay baguette mburu loolu dañ ko fay joxe daaw ci atiya danaa ñëw ci ni mu toll léegi waaye liñ jënd toll na ci quarante deux mille mooy ñeent fukki junni ak ñaari junni yoo xam ne ay mburu la yuñ jënd loolu it bu ñu ko boolee mi ngi toll ci soixante sept mille huit cent vingt quatre baguette mburu mooy juróom benn fukki junni ak juróom ñaar ak juróom ñett téeméer ak ñaar fukki mburu ak ñeent loolu mooy li ñu fi jëfandikoo daaw ci wàllu mburu juróom benn fukki junniy mburu ak juróom-ñaari junniy mburu ak juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñeent bu ñu xoolee li ñu fi joxee ci mburu muy deux mille cinq cent quatre vingt cinq mille huit cent vingt quatre yi xaalisam mi ngi toll ci trois millions huit cent soixante treize mille six cent li ñu jënd ci mburu di quarante deux mille baguettes moom it mi ngi toll ci six millions trois cent mille soo leen boolee. six cent soixante-sept mille huit cent vingt-quatre baguettes mburu yi xaalisam mi ngi nekk dix millions cent soixante-treize mille six cent francs euh, am na it mbooloo mu takku moo xam ne dañ daan waajal ay xewal yoo xam ne yu noppi la di ko fi indi bés bi set loolu mbooloo mu takku la moo xam ne euh, moo mu limu la ci biir loolu nag commission yooyu ma tuddoon kenn ku nekk am na budget boppam boo xam ne moom la financé commission organisation moo ci gën a yaatu ab liggéey waaye moo ci ëpp tam budget ci wàllu xaalis lu bokkul ak matériels yi fi ñëwoon yëpp jëfandikoo na ko waaye ci wàllu xaalis it jëfandikoo lu toll ci 33 millions 814 mille 200 francs ba ca topp mooy commission sociale moom it jëfandikoo na lu jógee fukki millions ndax def na 9 millions 275 mille mhm. ci wàllu social yaatu na lool xëy na yéeneem ëpp na foofu sëñ Blaat dana ci ñëw waaye fi man manam tolloon daaw moo doon foofu bu liggéey bi gën a yaatu yëpp mu gën a yokk ay jéegoom commission culture culture dépensé un million deux cent quatre-vingt-dix-sept mille francs commission communication dépensé un million cinq cent cinquante six mille cinq cent cinquante francs commission général dépensé un million trois cent vingt mille secrétariat administratif dépensé deux cent quatre vingt douze mille cent commission finance dépensé quinze mille francs loolu mooy li nga xam ne moom lañ dépensé loolu nag soo ko bëggee tënk da ngay wax ne li fi ñëw ci xaalis lépp mi ngi toll ci cinquante quatre millions cinquante six millions quatre cent mille deux cent cinquante li fi ñëw ci bagage mi ngi toll ci quatorze millions sept cent quarante deux mille soo leen boolee muy soixante onze millions cent cinquante cinq mille deux cent cinquante soixante onze millions cent cinquante cinq mille deux cent cinquante li ñu financer ci xaalis ak bagage ci koor gi li ñu financé ci xaalis mi ngi toll ci quarante sept millions cinq cent soixante onze mille cinquante li ñu dépensé ci bagage mi ngi toll ci quatorze millions sept cent quarante deux mille yi ñu fi ñëwoon bagage yooyu moom jeexoon na takk soo ko boolee lépp dépense koor gi lépp mu ngi tolloon ci 62 millions 313 mille 50 francs soo xoolee nag li fi ñëw lépp ak li ñu dépensé nii la tëddee li fi ñëw lépp ci xaalis mi ngi nekk 71 millions 155 mille 250 71 mille 171 millions 155 mille 250 li ñu dépensé nekk 62 millions 313 mille 50 euh, francs li des. ginnaaw bi koor gi jàllee mi ngi tolloon ci huit millions huit cent quarante deux mille deux cent foofu nag dana laaj ab leeral mooy lii dundal daayira Moukhaddamatoul Khidma li koy doxal li ëpp ci koor lay ñëw ak ci màggal moo tax koor danañ góorgóorlu ba lu bari dana fi des ndax diggante juróom-benn weer yi dox diggante koor ak màggal wala weer yi dox diggante koor ak màggal li koy dundal ci des bii lay jóge macha ak lu mu dépense ba rëy rëy daanaka ndax doonu mbooloo moo xam ne dañuy faral di laaj su màggal ñëwee itam fay ñëw la des mu ànd ak la desoon ca koor ga ci la ñuy tàmbali gàmm gi li ëpp colo ci gàmm gi ci lay jóge lu ñëwaat fekk si ko mottali ko waaye su gàmm gi jàlleet ba koor gi ñëwaat la ëpp ci dépense yi moo koy dépensé noonu la mbir mi di di doxee sëñ Fall macha allah euh, jërëjëf Cheikh Abdou Lahad jërëjëf itam mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ñu seetaan yaakaar naa ne leer na leer na ci képp koo xam ne yaa ngi dégg jumaa yi Tuubaa di dégg taxawaayu Muxaddamatul Xidma waaye daan génn saw ñaq di ko ci def xam nga fi saw ñaq bi xam nga it ne du liggéey bu woyof ndax koo xam ne ci fanweeri fan ndogu yi ngay organiser dépensé nga ci soixante onze million cent cinquante six mille deux cent cinquante mille francs yaakaar naa ne boo doon réew mi wër réew mi. 62 millions waaw li fi daje rek. bu tolloo ci 71 million nangam. waaw nga dépassé 62 million néew ma boo doon wër ci jumaa yi ak ci jàkk yi da nga ci gis jumaa ju dépense lu toll noonu wala jàkka ju toll noonu waaye boo nee benn ñaar doon a ñett kon loolu teg tegtale ne eh, li Serigne Touba ñaanoon ne sun borom bi jumaa ji daataa ko noppi mu ñaan na ko nag ñaan naa la nag ñoo xam ne ñoo ma koy taxaweel waxtu wu jot taxawaay boobee yaakaar naa ne mu daayira Muxaddamatul ma feeñ na ci bu baax a baax kon day mel ne ginnaaw ñëw nañ ci loolu damay ñëw wala may ñëw ak social ndax moom ci lii di aju li ñuy tënk lépp ci moom lay jël si damay ñëw ak sëñ Abdou Lahad Bousso mu ñëw ci maanaam wàllu culture wax nañ ko mu jëm ci wàllu ni ngeen di waajalee conférence yi ngeen xam ne da ngeen koy waajal ak ya ca aju ak itam communication bi nga xam ne itam conférence yooyu ak lii ñuy def lépp moom moo ko war a jàllale. aouzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi lay nuyu di nuyu bokk yi nga xam ne ñoo teew ci jataay bi yëpp muy sëriñ Abdoul Ahad Bousso Muxtaar bokk ci secretariat général bu daayira Muxaddamatul Xidma sëriñ Abdoul Ahad maam Asta mi jiite commission sociale et relations extérieures sëriñ Muxtaar Kan mi nga xam ne mooy premier adjoint commission organisation di président commission communication di la nuyu di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan yëpp ci Lamp Fall FM ci biir réew mi ak ci bitim réew euh, di am mbégte bu baax ci jataay bi di ñaan suñu borom mu defal ñu tawféex ba ñu fekkee ko déwén te mu ànd ak tal ak yokk euh, li waral jataay bi nag euh, wax nga ko léegi muy waajal Ramadan fii ci jumaa ji ngir dundal ko su ko defee euh, lu aju ci liggéeyu daayira Muxaddamatul Xidma fànn gi nga xam ne ci lañu féete muy wàllu euh, culture muy wàllu xam-xam ak yar te mu doon pàcc bu rëy rëy rëy ci ci koor gi ndax suñ dee berndeel roo yi ci financement bi fi euh, ñu dee berndeel jëmm yi li njëkk bala ñuy dem fi ñu berndeel jëmm yi mooy dañuy ñëw ci berndeel roo yi mm-hmm. muy indi ay thèmes yoo xam ne ñu nekk ci jumaa ji di fi teew lim bu bari la waaye ñi koy topp nag ci bitim réew ak àddina bi moom kenn xamul nu mu toll ñu leen di jox yóbbal bu am solo ci biir rapport bi dégg si Sëñ Abdou Lahad wax na li nga xam ne moom la ñu liggéey daaw ci wàllu thème yi ni ko ni ko leerale du jar ñu ci dikkaat ngir gagner temps bi ni mu leerale mawduwaat yeeg fat fatwaa yi am ci biir rek tàggat yi nga xam ne dañ koy def di ci ànd ak jàkka yi ak jumaa yi Euh, xëy na benn poñ bi rek muy téere bi nga xam ne génne nañ ko daaw te génne ci lu ma 3000 exemplaires nga xam ne mboolem lu aju ci waxtaan yi nga xam ne moo jàll ci at weesu ci lañ lañ ci tënk mu ngi doon mu doon lu am solo di yóbbul bu am solo ci ñiy gëstu ak borom xam-xam yi ndax dañ su ma la ko doon misaal daal day mel ne cere joo xam ne du jar ngay dem di ca dàgg ca dàgg ja di wal wala dara maanaam da ngay fekk daal ñu sef ci ñeex nga nga nga lekk rek maanaam noonu la téere boobu demee loolu ci Euh, liggéey bi dayrum xadim xidma di def ci koor gi ci lay jógee kon su ko defee dañuy jublu ci ren lan lañ waajal ren euh, lu aju ci yooyu mu wax euh, am na ci waaye dañuy danañ danañ danañ def waxtaan yi danañ ànd ak boroom xam-xam yi yi nga xam ne ñoom lañ koy àndal ren nag liñ waajal ci ay waxtaan mu ngi toll ci fukk ak juróom-ñett ci ay mawduwaat maanaam ay thèmes yoo xam ne day topp jamono. maanaam thème d'actualité. ci yi nga xam ne xam nañ ne askan wi war nañ leen cee yee. ci ñu waxtaanee ko ànd ko kii borom xam-xam. ci biir loolu fukk ak juróom-ñaar yooyu tamit am na tamit lu toll ci juróom yoo xam ne juróom-ñetti waxtaan yoo xam ne ay bind lay doon ay durus maanaam dañuy jàngal nit ki bind bu ko gën a jege am na tamit ñeenti fatu fatwa yoo xam ne dana ci am ci biir loolu. nii lañ koy tënk yi nga xam ne semaine bu nekk danañ am ñeenti mawdu maanaam ñeenti semaine yi am ci biir koor gi semaine bu nekk dana am ñeenti waxtaan ak ñaari dars ak ñaari fatwa fatwa yi mooy laaj yi nga xam ne euh, bokki jullit yi ak bokki taalibe yi teew ci waxtaan bi ak ñi teewut nga xam ne dañ leen di jox numéro ñu ci yónnee ay laaj ci àddina bi fu nekk euh, ñu profité ci joxal leen numéro bi sax wala ñoo sori ci ci mënees naa tàmbali yónnee laaj yi ku am laaju diine booy laaj rek da dañ ko tontu mën ngay mën nga ko yónnee ci whatsapp 77 678 57 66 77 678 57 66 laaju diine boo ci yónnee danañ ko tontu ci jataay bi fii ci daayira bi su ko defee nag ci biir liggéeyu xam-xam bi am ci biir koor gi Euh, ni ma la ko tënkale noonu muy fukki waxtaan ak juróom-ñett ak juróom-ñetti dars ak ñeenti fatwa ñi lay amaane tamit daaw waxoon nañ la dañoo dañ doon tàggat ci wàllu nodd ak liqaam ak nan la ñuy jiitee nu ñuy nu ñuy xutba mm-hmm. léegi nag su ko defee lu mat ñeent ñaar téeméer ak juróom fukk daanaka ci ay jumaa ñëwoon nañ fi ci ñaari at yi weesu ren nag dañoo bëgg nag xayma maanaam dañuy bëgg a xayma liggéey boobu xam nga tàggatoon nañ leen ñu nekk ci seen i jumaa te saaroo mm-hmm. ren nag dañuy waajal jataay boo xam ne Euh, dañ leen di nattu buñ wooyee jàkka ji déglu bilaal ya fa nekk wala ya fa nekk ba xam liñ leen doon tàggat euh, mën nañ ko suñ ko mënee ñu jox leen benn diplôme wala benn euh, attestation boo xam ne day wane ne kii kat man na lii muy def ba nga xam ne jàkka jum dem su ko wanee danañ xam ne ci jumaay Tuubaa lañ ko lañ ko tàggatee ci loolu macha def nañ ci tamit benn téere boo xam ne téere wolof la boo xam ne day jàngale nodd ak liqaam ak ay atteem nga xam ne tamit su boobaa suñ tàggati nit ko pare danañ ko mën a jox téere bi muy ab yóbbal nga xam ne léegi tey daal euh, tàggate nañ fii waaye ñooñu tamit bu ñu demee danañ mën a wéyal di di tàggate loolu tamit nag euh, moom daayira bi na ci ci dëkk bi ak ñi ko aajowoo ci seen wàllu diine ndax loolu dañoo jàpp ne jumaa ji moom mooy ndey jumaa yi ci wàllu googu kon ci njëkkante ak ak ak waxtu bi incha allahu rabbi ni ma ko waxee at mu jot xam nga ne euh, commission culturelle su koor gi desee ñetti weer daanaka la ab liggéeyam di tàmbali ay waxtaan ngir dañuy xool euh, jullit yi fi ñu toll ak fi jamono toll ñu seet tomb yoo xam ne méngoo na ak jamono. Mm-hmm. ñu indi ko ñu xool bind yu ñu war a jàngale ci wàllu fiq yoo xam ne méngoo na euh, ak jamono ñu indi ko su ko defee kon ren incha allah ñi ngi. tàmbuli comme ni koy defee at mu jot ci waxtaan wi njëkk war koo ubbi ci benn fan ci weeru koor sawmu ramadaan ahkaamun wa asaar maanaam danañ waxtaanee koor ak ay mbóot yi nga xam ne moo ci aju euh, suñ moor xam sa diine moo koy waxtaan bi ci topp suñ fàllu bu sa asan di ko def muy almawaat almuwaatana bayna al xuquq wal waajibaat maanaa citoyen bi citoyen bi ak wareef yi nga xam ne war na koo am ci am réewam loolu loolu yaakaar naa jamono laaj na ko fi mu nekk nii. waaw nit ki daanaka xamut warta warteef yi ko lislaam te yooyu yëpp bu ñu koy wax nag da ngay dellu ci lislaam dëgg la maanaam ki nga xam ne moom bëgg naa xam li ko lislaam sant moom citoyen citoyen bi ci am réew mu xam ko boobu suñu fàll bu asan moo koy def moom kenn ku ne xam na ne loolu jàmbar la danañ waxtaane tamit al irada sadiqa te loolu mat naa waxtaane mm-hmm. maanaam dëgg dëgg lan mooy ak murit ak ay pas-pas pas-pas yi jikko yi nga xam ne moom la murit bi war a làmboo loolu it yaakaar naa tomb bu am solo la sëriñ Hafi Ahmad Ñang moo koy def danañ waxtaanee tooñaange ak ay xeetam ak loraange yi nga xam ne mën na koo jur ci askan wi naa xam nga de fi ne tooñ bëri na xeeti tooñ yi it na mm-hmm. waaye nit ki war naa xam tooñ ni mu ni mu ak loraange yi nga xam ne dafay jur ci ci ci askan wi mu moytu ko. suñu seex na bu sa cumb leen moo koy def. Euh, loolu ci ñeenteelu fan bi ci juróomeelu fan bi danañ waxtaanee lu aju ci wàllu atte yi nga xam ne lislaam tëral na ko euh, ci wàllu location maanaam luye maanaam maanaam maanaam luye ak lu ci aju daal. Mm-hmm. waaw loolu danañ danañ ko waxtaanee. Euh, sëñ Souleymane Badiane moo koy moo koy waxtaanee. danañu euh, euh, sëñ Mouhamadul Mamoun Mbacke mu Cheikh Amadou faadal mooy ñëw ci juróom-benneelu fan bi di ñuy waxtaanal al bu'dul xaqliya wal insaaniya fi xayaati Cheikh al Qadim muy tam bu am solo maanaam mbir yi nga xam ne sëriñ bi réesir na ko ci ak dundam te teg ko ci xel ak insaaniya maanaam bëri na loo xam ne dañuy waxtaane sëñ bi ci baatin. ak ci may yàlla ak yu demee noonu waaye bëri lu sëriñ bi réussir réussir ci àddina ak ci doxalinam ak ci ni mu doon yaree waaye ci xel la ko teg kon loolu danañ ko waxtaan ngir kilifa gu jiite mbooloo war a xam ne war ngaa jëfandikoo sa xel ci ni ngay jiite mbooloo loolu sëñ Mouhamadul Mamoun Mbacke mu Cheikh Amadou Fadal moo koy def danañ waxtaane tamit ci juróom-ñaareelu fan bi al amn wal istiqrar fil mujtama maanaam solo si nga xam ne euh, nattuwaayu jàmm am na ko ci dallu askan wi maanaam sëñ Moustapha Diop Ndar moo moo koy moo koy moo koy waxtaane maanaam kóolute ak solo si nga xam ne jàmm nattuwaayu maanaam jàmm dana ko dana ko waral dana indil ak sax ci askan wi ni niñ ni ko jullit bi war a yittewoo ak ni mu ci war a taxawee ngir ngir ngir participer ci loolu sëñ Moustapha Diop Ndar moo koy moo koy def juróom-ñetteelu fan bi danañ waxtaane euh, benn bind boo xam ne ci fatwa lay doon juróom-ñeenteel bi danañu indi waxtaan woo xam ne sëriñ Seexuna Mbàkke alxaaji Baara Fadilu moo koy def nekk euh, conseil consul général fee ci Jidda ci Arabie Saoudite mm-hmm. euh, xam-xam màcc ci lool lool muy jëflante yi nga xam ne lislaam euh, tëral na àtte yi nga xam ne tëral na ko ci wàllu jëflante ci wàllu banque moo xam leb yaag ya ca aju ak ak ak ubbi compte banque ak maanaa maanaam attey lislaam daal jullit bi nan la war a def nan la war a jëflanteek banque loolu suñu seex ma moo koy def euh, muy juróom-ñeenteelu fan bi ñuy waxtaane tamit euh, siiwal ay ñaawteef siiwal ay ñaawteef lor yi nga xam ne daf koy indi ci nit ki Euh, maanaam day jeexital da koy jeexital ci ci ak danse yi nga xam ne am na ko ci ci ci askan wi ak nit ñi. xam nga loolu yaat na fi mu ne. da ngay gis ñoo xam ne dañuy jël luñ gis rek partase ko. di partagé vidéo yi di partagé TikTok yi ak yu demee noonu moo xam te te lu bon lay doon te xamuñ ne lu bon soo ko partagé yàgg ki ko def da nga ciy séddu bu baax ci wàllu kii bi. loolu kon tomb bu am solo la fàtte mufatis Serigne Mountakha Diatara moo koy moo koy waxtaane fukkeelu fan bi ak benn dana danañuy waxtaane incha allah euh, université bu mag bi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha tabax na ko ba ñu ubbi ko bu yàggut tem des lu bëri te ñu xam ne li des moo ëpp mm-hmm. maanaam baat bi nga xam ne sëñ Mountakha wax na ko muy baatu buum laal suuf bu mu laal suuf googu nag la ñuy indi jàngat ko lu tax sëñ Muntaxa ne bu laal suuf moo war a xam ne kon li mu wax ne fii ak ñeent téeméeri at juróom-ñett téeméeri at kon am na lu des bëree bëree luy xaar taalibe yi ci ci ci taxawaay yi war a am ci université boobu docteur Khadim la moo koy moo koy def euh, danañu waxtaane lu aju ci wàllu dénkaane ak atte yi nga xam ne lislaam tëral na ko ci dénk dénkaane ah léegi da ngay gis ñoo xam ne bu ñu leen dénkee rek moom te loolu bëri na xam nga loolu yitte na ko sëñ Mbàkke Abdu moo koy def danañ waxtaane tamit euh, kilifa diine euh, maanaa màndarga yi nga xam ne euh, kilifa diine gu mat dana ko dana ko dana ko am ci njiit maanaam jeexit yi nga xam ne dana ko am ci moom kilifa gi nga xam ne mooy kilifa guy guy gindee ci ci ci aw askanam loolu al mu fàtte Cheikh Ahmadou Mbacke Gaïndé Fatma moo koy ñang moo koy def allah danañ waxtaan tamit woote jëm ci yàlla liñ ci war a déggee ak ay cosaanam boobu sëñ Abdou Lahad Sané moo koy def maanaam daxwa ilallah fukkeelu fan bi ak juróom ñu def beneen fatwa incha allah danañ def euh, fukkeelu fan bi ak juróom benn sëñ Mamor Mbacke am di mooy ñëw euh, indil ñu ay bind ak ay waaraate yoo xam ne dañ koy tànq ci dunduk Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu fukkeelu fan bi ak juróom-ñaar dañ waxtaan al ixlaas wa riya fi xasri tawasil ijtimaiya maanaam eh, ngistal ak naw jëf muy ngistal muy bàkkaar bu mag boobu nga xam ne bàkkaar boobu nga xam ne nit ki dana koy def ci ci ay ay jëfam mu koy def te yàlla taxut ni nga xamee ne ni la ci tas tasu jumtuwaay xarala yi fese hmm. tey nga gis ne tiktokeur yeeg islaveur yeeg yooyu nga xam ne léegi da ngay gis nit kuy dem di aji màkka wala muy wër kaaba gi wala ki nga gis muy sinab boppam wala muy yóbbu addiya wala yu demee noonu di ko wane di ko fës loolu mën naa tax jëf ji yàq hmm. loolu nag danañ waxtaane kon suñu téléphone yi ñu yor ni mu yàqee suñu jëf te duñ ci bàyyi xel ngir ñu moytu ko ndax ngistal day yàq jëf loolu suñu abo kebe moo koy def danañ waxtaane tamit yi nga xam ne Euh, mbir yi nga xam ne yi mbir yi nga xam ne day soppiku ak yi nga xam ne du soppiku ci ci ci ci yi nga xam ne day sax waaw ak yi nga xam ne yu du soppiku la ci yoonu murit waaw cëslaay yi mm-hmm. waaw cëslaay yi nga xam ne euh, mën naa soppiku ak yi nga xam ne mënut a soppi mm-hmm. ci yoonu murit waaw waaw mm-hmm. Mm-hmm. loolu suñu seex ma Abdou Wadoud moo koy moo koy def euh, incha allah tamit fukkeelu fan ak juróom-ñeent danañ jàngat xasida gi ñuy wax xaalul yarkan euh, nga xam ne dañ dañ dañ dañ koy dañuy def li ñuy wax dirasa taxliliya suñu Ahmad sàmm moo koy def xam nga xaalul yarkan moom jàngat ko jamono ji jaadu na jaadu na moom loolu dana amal solo Euh, danañ waxtaane tamit benn tom boo xam ne ñaar fukkeelu fan bi ak lu am wàllu maas bil baatili maanaam lekk alal yi nit ñi ci ci ay caaxaan maanaam euh, li nga xam ne euh, daan yi nga xam ne lislaam teg na ci jul teg na ko jul bi suñ fàllu bu sa na moo koy def ñaar fukkeelu fan bi ak benn fatawa lay doon si Seexuna Mbàkke Abdul Wadud léegi ñaar fukkeelu fan bi ak ñaar danañ waxtaane lan mooy dëgg-dëggi Euh, lan mooy wërsëg ak alal ak barke maanaa sëñ bi nan la déggee luy wërsëg ak alal ak barke. macha allah maanaam loolu danañ tànk ci njàngale bi sëriñ bi ni ko sëñ bi jàngalee ñoom ñooyu parce que yooyu tamit dafa jaxasoo fi ne ba nga xam ne. mat naa xam danañ waxtaan tamit ñaar fukki fan bi sëñ euh, Abdou Khadir Bousso jërëjëf sëñ Mawla Abdou Khadir Bousso Alaaji Seex moo koy def. Euh, incha allah tamit lu aju ci wàllu taxawaay yi nga xam ne. Euh, communication am na ko maana euh, wàllu communication ci yoonu murit maana ak rôle bi nga xam ne mi ngi koy suyee ci liggéeyal ci ci ci wàllu xitma ci ci yoon wi euh, loolu si Seex Fànn moo koy waxtaane moom yaakaar naa sëñ lu seen mbir la mhm. waaw su ko defee tamit fukkee sëñ Seex Fànn mu sëñ Moustapha Basir moo koy waxtaane ñaar fukkeelu fan bi ak ñeent danañu waxtaane Touba ci boppam maanaa jubluwaay bi maanaa fu jëm waaw ëllëgu Touba ci boppam lañuy ñuy jàngat waaw ak euh, sukkandikoo ko tamit ci euh, daara ji nga xam ne moom la Cheikh mu Mountakha tabax waaw muy sukkandikoo sukkandikoo ko ci maanaam moom daara yi Cheikhul Khadim ji Euh, bu fekk fan la jëm euh, moom nuñ ko tënk sax mën fan la jëme Touba ci wàllu njàng ak jàngale macha Allah waaw loolu sëñ Sam Bousso Abdourahmane moo koy def euh, lu aju ci wàllu Trasul Xadim yi muy waxtaane ndono li nga xam ne sëriñ bi bàyyil nañu ko fi lan moo ci sunu warteef loolu lu am solo la ndax lan mooy ndono li ak lan moo ci sunu warteef nu ko war a sàmmee sëriñ sarif mbàkke mu Cheikh Amadou moo koy def sakaatul fitri salaat wa salaatul xiiday ni ñaar fukkeelu fan bi ak juróom benn euh, muy natt asakay muurum ak julli iit sëñ ibrahima kebe moo koy def sëriñ euh, euh, seexuna mbàkke abdul wadood dana waxtaane ci li ñuy wax al intixaabaat wa waajibul wa waajibul muslim muy warteef yi nga xam ne jullit bi am na ko ci tànn njiit li koy jiite maanaam njiitul réew ak njiit lu mën a doon atte bi nga xam ne lislaam tëral na ci jullit bu koy tànn mu war koo xool bu baax a baax loolu it nekk nañ ciy jamono Cheikh naa bu doon moo koy def maanaam euh, xitaab yi maanaa discours yi nga xam ne kilifay diine yi ñi ngi koy def ndax bari na kilifay diine yuy wax discours yooyu euh, war nañ cee war nañoo waxtaan danañ ci waxtaan Euh, muy discours kilifa diine gi euh, fan la war a àgg ci ci ci askan wi loolu tamit yaakaar naa lu am solo la moom sëñ bu Bousso Assane moo koy def ñaar fukkeelu fan bi ak juróom-ñeent fatwa lay doon sëñ Mbàkke Abdourahman euh, fanweereelu fan bi ñu ngi waxtaanee benn bunt bu bu ñuy wax baabu sànni ci la indi ay masala ci yoo xam ne dañ koy tibbee ci jawar nafis baabu saani mooy bunt bi nga xam ne Eh, ñu bari xam nañ ko ci jàng jawar nafis di bunt bu am solo ci juum ci julli ak yu demee noonu nan la koy nan la koy réparé kon suñ fàllu moo la doon tënkal daal loolu mooy liggéeyu la ñu ci biir koor gi ñu yamale kàddu yi foofu doon nañ gaawal loolu ndax dañ jël temps asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf euh, Cheikh Abdoul Ahad ndax euh, li nga indi yaakaar naa ne euh, jamono damay wax ne ndax su ngeen noppee ci lii ngeen di def ndax kaset yi duñ ko yóbbu assemblée ñu déglu ko ndax ndax laaj na ko ndax li ñu waroon a waxtaanee ci réew mi lépp day mel ne euh, buñ noppee rek dañoo war a yóbbu rek député yi ngir ñu walide loolu. yaakaar naa ne bu fekkente ni bii député yi ne ci réew mi dégg nañ diine ndax nit yi diine lañ jiite war nañoo taatan bu baax a baax discours yi nga xam ne mi ngi jóge ci jumaa ju mag ji macha allah am na solo lool. Euh, ngir njëkkante ak waxtu wi damay ñëw ci sëñ Abdou Lahad Maam Asta ginnaaw ñaari Abdul Ahad ko seq ndokk bi nag am lu nekkee ci diggante bi xam naa ne te ñoom laat yi wër na ma wet gu waaye waaye incha allah maa ngi seen maa ngi ci kanam waaw comme danañ ci ñëwaat bu soobee yàlla kon sëñ Abdul day mel ne lii ñu tënk nii balaa mën a sotti rek social la koy sottal balaa mën a sotti social moo koy sottal ñu bëggoon a xam nag sëñ bi tuddal nañu léegi ne daaw dépensé ngeen 62 millions et quelque may fàttali bokk yi ne. numéro bi sëñ Abdou Lahad bu sa Cerno joxe woon muy lii ñuy wax nii ne képp koo xam ne am nga laaj bu la ñor ci diine nga teel koo joxe moo di 77 678 57 66 laaj yi moom mën naa continuer ñu fàttali ne waa Muxaddamatul Xidma 71 millions quelque daje woon nañ fi daaw waaye dégg naa ci wax ak kàddu sëñ Abdou Lahad ma Maxtaar muy wax ne desu koor gi ak desu màggal gi moom la waa daayira bi di dunde kon waaye daayira bi toujours ci aw des la ñuy xaar kon bu dara desut yaakaar naa ne dana am jafe-jafe ngir ñu dund kon nag kuy dundeew des war nañoo fexe ba góorlu ba mu desal loolu it képp koo xam ne bëgg ngaa participer ci liggéeyu jumaa ji eh, am nañ numéro Wave bu ànd ak Orange Money mu di 77 686 13 13 77 686 13 13 nit ki saa yu xëyee bu ko neexee mu yónnee addiyam ci Serigne Touba directement ci jumaa ji ci téléphone am ndax donte ba nga xëy sax danga jënd connexion 1000 francs wala nga jënd nangam nangam wala nga xëy sax donte bu ma xëyee ne fas naa yéene daal sëñ Tuubaa weer wu naa ko jox 15000 saa yoo xëy yónnee sa 500 francs rek dana tàbbi si jër te ndax ki joxe téeméer te am yéene junni danañ ko fay lu toll ni ab junni ki joxe téeméer nag defar leen mu ko ci dundu waa jumaa ji dana am dundu dundal ab jullit ren ba déwén ndax bokk na ca kon ma bàyyi kàddu gi ak sëriñ Abdou Lahad euh, Maast asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalib yi ñu ngi leen di nuyu di sax suñuy nuyoo ci nuyoo ñi ñuy jiitu ñu dale ko ci kilifa yañ ko dale ba ci fi ñu yegg si nii te kilifa googu buñ ci tuddee Cheikh Mamadou Mountakha yóbbaal na ñëpp ñu ngi ko ñaanal yàlla yàggal ko fi te wéral ko ba li mu yéene la géej Serigne Touba mu jëf ko te ànd ko ñun sëriñ Fallou noonu nga ko waxee commission sociale ku ne xam ne ne lii ñuy def ci koor ci boppam rek mm-hmm. koor ci boppam rek social la mm-hmm. lii koor lépp social dëgg la kon dafay mel ne day doon commission boo xam ne mm-hmm. liggéeyam mënu koo matale da cay jéem lu mu ca mën a jox mu def ko ci fu ne nag lañ lëtalee nga matale fa ndimbal rawat nag fépp foo xam ne nit ñi ku jóg fa nga jëm kon matale foofu ndimbal fa la gën a jafe euh, noonu nga ko waxee rek liggéey bi di mu tàmbalee ci commission bi la ci war jiitu jiitu na ci dem ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha sàkku juwaat ñaan digguwaat ndigal mu joxe ndigal joxe ñaan ndigal li mu joxe bokk na ci ni lii ngeen def de na fexe ba lu ci nit defoon lu ne bu ko yokku bu ko wàññi kon joxe na ndigal te lépp danaa ko ànd ak yéen kon xel dal na mm-hmm. wax nañ ci liggéey bi da ngeen ci am ngërëmal Sëriñ Tuubaa kon loolu ñaan la dëgg la kon nag loolu bu ubbee li ñu ubbi ñu dem tàmbalee loolu mu wax ko ñun ñu ko wax xam nañ li ñu wax lan la. ndax yàgg nañoo wax te lu ñu mas a wax rek teg nañ ci suñu bët. ndax Cheikh Mouhamadou Mountakha bi mu dalee ànd ñun tey ba daayira bi soo ba tey jóg na suba teel ngir noonu jóg na digg bëccëg ngir ñun wóolu nañu waxtu nekk tamit ngir liggéey bi rek. bagage sax bu ñu ko mas a am lu mu néew néew léeg-léeg day ñëw ci jumaa ji xoolal ko boppam ñu dem yóbbul ko mu xool ko kon kooku yàgg na ñun. loolu nga wax nag ci eh, li fi daje lépp nga xam ne moom mooy li ñu def daaw yépp la fii ñu toll nii saabu bu koor jubee ba ñuy def nii loolu wóolu kii ci baraag bi rek waaye amul lu ñu denc di ko waajal ngir jëm ko ci koor gi dañuy nas lañu war a nas xalaat liñu war a def toog di ko xaar hmm. ci waxtu wu nekk li tax ñu dal sunu xel hmm. saa bu koor jubee koor gi gën a jaaxle defee ne danañ am jafe-jafe boobu nga gën a jag ndax booy tàmbali defee ne ndax dana am lu mën a dogal ñaari fan boo matee ñaari fan am ñetteel ba di def noonu ba mujj ba te bis bu mujj ñëw gën a neex gën a xumb kon loolu ñun ñu yor liggéey bi wóoru gi ñu wóoru ki ñu moo tax ci la ñuy sukkandiku di ci jëf waaye du kisoo lu ñu dajee sax di ko ci mën a def ndax li ci ëpp day ñëw dabe maag dëbb koor gi bu ñuy duggaat ci koor gi waaye nag liggéey bi ndokk la boo xamante ne ànd nañ ko ñu ko war a àndal ndax ànd nañu ko njabootu saw xadim yi ak taalibe bi xadim yi ak jullit yi ak ñi bëgg lu baax ñooñu nag moo xam ci biir réew mi la wala bitim réew kilifa yooyu am na ci kilifa yoo xam ne waxtu nekk ñi nga ànd ñu liggéey bi Cheikh Mouhamadoul Mountakha ak kilifa yoo xam ne ba daayira bi sosoo ba tey surtout ndogu yi tàmbale ba tey waxtu nekk ñoo àndoon loolu ba fii may wax teguwuñ seen tànk du ñàkk ñoo xam ne mënuñu tudd ñëpp waaye du ñàkk ay jëmm yoo xam ne am nañ jëf yoo xam yàgg nañ koy jëf ci daayira bi te ba fii may waxee dëkkut ndax sax nit sax mën naa ñëw feeñ subaa mu demaat waaye koo xam ne ba mu tàmbalee ba tey saa bu xëyee di gën a feeñ di gën a jàpp di gën a dogu te doon kilifa ci yow cant ak ngërëm nga jaadu na ci dëgg la loolu mel na ku ci mel ne seen Cheikh Oumy moom Cheikh Modou sëñ Cheikh Oumy mu Cheikh Amadou Fall mhm. ak sëñ Cheikh Awa Balla sëñ Fall ak sëñ Ahmadou Faye moom sëñ ay taxawaay yu am solo lañ am bu yàgg ba tey taxawuñ ak Cheikh Mouhamadoul Basir moom Cheikh Abdou Khadir nga xam ne ci dëgg bi la bokk am ci taxawaay yu rafet rafet waaye loolu tamit dina mel seex Cheikh Aliou Mbacke nga xam ne lépp lu day doon bëgg-bëggam bu ko yoree da ngay nga gis mu ne ko yow waxtu nekk tamit dafay dajale ay at jiw waxuma ñëwam de dajale ay at jiwam ànd ci nitam ñëw jëmale ko ci liggéey bi dajale ay taalibeem dajale ñëpp ñu indi seen li ñuy liggéey liggéey ci liggéey bi ba lépp lu ñu taxaw mu mu ànd ko ñun sëriñ Xamsa ne xam na ne ni mu jàpp daayira Muxaddamatul Xidma di jàpp rafet woo xamante ne waa daayira bi xam nañu ko moom it xam nañu ko sëriñ Tuubaa na tax ñu di ko def ko bokk xam te fay ñu ko ak euh, ki nga xam ne waxtu wu nekk bu ñu toll ci ñaar fukk juróom-ñeent ci ndigal lam jotoon ba mu ko jotee ba tey waxtu wu nekk di jotaat ndigal li waaye day gën a wane ak rafetloo gu mu rafetlu ndigal li ak sawar gu mu sawar mu seen Musaa am Sëriñ Abdu Xaadir nga xam ne bi mooy ñëw tëj si ko waxtaan fi waxtaan am solo solo kon ak Sëriñ Abdou Samad mu Sëriñ Suhaybu moom it taxawaay yu rafet yu mel noonu moom la am ci ak rakkam ju baax bàyyi xel daayira Muxaddamatul Xidma de Serigne Baaram Serigne Sohaybu Serigne Baaram Serigne Sohaybu ku bàyyi xel liggéeyu jumaa ji la waxtu bu nekk du bëgg a feeñ sax li du bëgg ko wax sax waaye waxtu bu nekk lu yittee daayira bi daa ngi gis mu dugg jëf tudd ci feeñ sax du ci nangoo feeñ ba fi ma wax fi ñu toog rek di ñu wër ci jumaa ji foo doxalee la nga gis jëf ju nekk ci biir jumaa nit ñi di ko jariñoo sëñ Baara ko fent kon ñu ngi koy jot ay cant ak i ngërëm ak kenn ci daayira moo xam ne mu xin ma di sëriñ siir mu sëriñ Abdou Xaadir sëriñ moom lëkkaloo bu mu boole bu mu boole bopp ci daayira moo xam ne mu xin ma ak mu it waxtu nekk lay ñëw di ànd lu ñun liggéey bi bi ci wax xalaat yu rafet di ko ci jëf waa ak sëriñ Moussa mu sëriñ Mouhamadou Mourtada nga xam ne mën naa ne bañ tàmbali ko ba tey bis bu set at mu jot dana bàyyi li mu doon def lépp ñëw nekk ci jumaa na mu ko ñi jàpp ci màggal gi yëpp ñi eh, bi yëpp nag doon dañuy taxaw ngir lim ñëpp waaye dafa am ñoo xam ne dañoo jàpp jàpp koo xam ne bàyyiwuñu te jàpp bu ñu leen tuddee xam ne tudduñu leen kon ñooñee seen taxawaay ak seen cant mën na lool ak jàmbaar ju jàmbaare nga xam ne ba daayira bi tàmbaleegut la daawul ay xéewal bu waxtu jot léegi mu fendi muy soxna barakatu bu soli soxna gàtt taxawaay yu mat sëkk la daa am ba fii ma wax yow mi soxna baalim soxna ak soxna maam fatim soxna moomi ak soxna xaadir ak soxna maam këri mu sëriñ soxaybu ñii di ay jàmbar yoo xam ne ay liggéeykat yu ràññu ko waaye nag ak kaneen koo xam ne moom daa bokk ci noonu ñu bokk ci moom mu sëriñ soxna Baali Muntaxa moom Muntaxa soxna Baali Muntaxa moom membre la ci daayira Moukhaddamatoul Khidma ba tax na bu ko dee sant sax day mel ne daayira Moukhaddamatoul sant kon soxna moom it soxna Baali tamit taxawaayam noonu la mate lool ci liggéey bi ak sëriñ Modou Xabaan moom Cheikh Mamadou Fadal sëriñ Modou Xabaan moom Cheikh Mamadou Xabal moom it taxawaayam ci daayira bi ni ko sëñ bi doon defoon doxoon sëñ Maam Mor mu di ko ubbi si maa ngi ci ñëw léegi noonu la ko ñoo xam ndigal te mu doon kenn ku ràññu ko noonu tamit bokk ci liggéey bi di ca taxaw taxaw rek muy ànd muy ñëw di ànd ak Seexul Xadiim wax Seex Mamadul Muntaxa kon ci kaw loolu kilifa yi day kilifa yoo xam ne dañuy tudd ñu baale ñu ñeneen ñi ci des waaye tamit nag mu am yoo xam ne ay jàmbaar la xam ne yàgg nañoo ànd ñu liggéey bi ci yàlla suñu borom defal ñu jiitu ji ñooñee nag danañ tudd ñenn ñu yóbbaale ñi ci des mm-hmm. danañ tudd Cheikh Mamadou Moustapha moom Cheikh Massamba ku ne xam ne sëñ Moustapha am ak daayira Muxaddamatu Xidma ba bam ba muy man dana ñëw bi doge fi bis bu mujj bi mu ñëw fi tëjale boole nag saa bu bokk nañ ci fi jiitu moo daw bis ba mu demee ba yàlla dogal yaram mu sawrut moom ci moom yàgg na sëñ Muntaxa du ko xalifa sax moo ñu yebal ni dem leen sëñ mu tànnal leen ku leen ko ubbi si ñu dem si mu taxaa mu ne leen dem leen si bu ngeen ko na tànn ñu ne ko moom kan moo ñu yabal ci yow nii da nga tànn nga tànn ku jiitu mu yabal ay njabootam ñu jiitu eh, ko ngi fàttaliku si Moustapha Cheikh Massamba di ko ñaanal yàlla sunu loolu koy yërmande loolu ko njëkkal eh, loolu ko ay xéw bare bare njaboot gi ñu fi bàyyi itam yàlla sàmm leen ba ñu eggal liggéeyam waaye di sant eh, fàttaliku tamit jàmbaaru ko jàmbaar woon ci liggéey bi ci murid gi rawat na ak jumaa ji di sëriñ maam moor moom Cheikh Modou Fadal amoon tax yu rafet rafet ci diine ji ak ci murid gi surtout ci jumaa ji kon sëriñ maam moor ngi koy ñaanal bu baax yàlla suñu borom doolu ko yërmande ak njëggal ci bàkk sul xadim bu ñu tuddee ne ci opérateur économique la bokkoon ñi nga xam ne ñoo ñoom ñoo soxla liggéey bi di ci woon ak sëriñ Xaadim Lo ak ñeneen ñi ci des bu ñu tuddee rek ñoom ñëpp ñu ngi leen ñaanal njëggal ak yërmande ak xéewal fa ñu nekk ci mbàkk sal xadim kon liggéey bi nag di liggéey bu yaatu yaatu boo xam daayira Muxaddamatul Xidma dafa tàllal loxo ñëpp ñi nekk ci réew mi ak ñi nekk bitim réew fu waay nekk ci réew mi fukki raso yi ñeent na nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma mi ngi lay bàyyi xel di la tàllal loxo ci liggéey bi di la xamal ne liggéey bi ñi ko yor dañ ko yor téyal ko ñëpp kenn ku nekk sa wàll la nga ci lu ne ku nekk lu ne ko la kenn ku ci nekk rek foo ci yem yaama yaa ci yemal sa bopp mbir daa mënta ñàkk nekk ci loxo yu koy doxal waaye du loolu kenn loolu ñëpp ku ñëw ku nekk sa wàll nga ci wet goo mën rek boo dikk ñu liggéeyloo ci ndax la ci firnde mooy am nañ mbooloo moo moo xam ñu ngi ci électricité la ñuy liggéey am na ñoo xam ne ñooy ci ci ci ci ci ci tàcc ko tàpp ci li ñu liggéey am ñoo xam ne li ñu liggéey am ñoo xam ne ci leneen la ñuy liggéey kon loolu day ci képp képp loo xam ne nit mën na ko te loolu daayira bi yittewoo ci biir jumaa ji da nga xam ne daayira na ngir loolee moo ànd ci ak ñu di ko def di ko anam ñi gën a rafet ñu di ko defal seen Tuubaa loxo fu waay mën a nekk ci réew mi fukki raso ñeent yëpp ñu ngi leen tàll loxo waaye yëmuñu foofu tamit da noonu la ñuy tàll loxo mboolem ku nekk ci Afrique loolu nañu tàmbali Côte d'Ivoire sëriñ Touba Lo ma fa nekk ak sëriñ Sadex Kan ñu ngi leen soññ seen jëf yu rafet yi ñu daa jëf ñu ñu yaatal ko Mali sëriñ Mam Balla Guèye ak sëriñ Mam Balla Mbàkke ak ak alaaji Mukuma Caam ci Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire mooy sëriñ Touba Lo ak sëriñ Sadex Kan ak alaaji Mukuma Caam may jëwriñ liggéey ba liggéey ba jaatax yoo ñu ngi leen fàttali ñoo ñoo yor liggéey ba ñu ngi leen fàttali lañ daan tax ñu taxaw ko bu dee Mali sëñ Mame Balla Gueye ak sëñ Mame Balla Mbacke fenn fu nekk dañu fi tudd ñeen rek ñu yóbbaale ñu terees bu dee Gabon sëriñ Bandu Seen ak sëriñ Baraka ak Baye Fall Mbeng bokk ci waa kër sëriñ Fallum sëñ Aliou sëñ Fallum sa Aliou ca Gabon ak Gana ñoom ñu ngi leen tàllal loxo ci liggéey bi Togo sëriñ Mamour Dramé ma fa nekk ñu ngi koy soññ ci liggéey bi ba kër saa soo tamit ñu ngi leen di fàttali di leen soññ ci liggéey bu baax a baax Nitria sëriñ waagaan fay moom it baax di ko soññ ci liggéey bi Guinée Conakry sëriñ Saliou Ndiaye nga xam mooy jëwri daayira Moukhaddamatoul Khidma ak Alaaji Abdou Thiam jëwri daayira bi moom it ñu ngi leen di fàttali euh, dafa am fu ñuy wax Moukhaddamatoul Khidma bu Italie Daaru Touré sëñ Daaru Touré ak sëñ Ibrahima Ndiaye xasida ñooy jëwriñ yi ñooñu tamit ñi ngi leen fàttali nañu daa def ci liggéey bi ñooñu bu biir kër gi tamit am na fu ñuy wax Toscana ak Sardinia ak Lombardia ba ak Bari yëpp ñoo ñëpp ñu daa taxawu ci liggéey bi dëkk yi dëkk la yoo xam ne dafa nekk dañuy ba taxaw ànduñu liggéey bi ñi ngi leen fàttali liggéey bi Porto Vico di fi nga xam ne fi la kër Sëriñ Tuubaa nga nekk Sëriñ Xaadim Mbay ma fa nekk mi nga xam ne ne mi ngi leen di xamal ne liggéey ba ñu daan def defati nañ ko ndax ñoom seen Xaadim Mbay waa Winito dañoo sosoo woon di fi indi capacité ci taxawaayu Cheikh Awa Balla la mu Cheikh Modou moo doon wax léegi jàmbaareem ak jàpp ci liggéey bi ñu leen ci soññee ba yàgg soññuwaat ci waa Rimini ñoom ñoom ñu bokk di indi ay kopp yàlla dogal na murid yi moom bëgg àdduna ak dara da leen a jóg liggéey Sëriñ Tuubaa te dëgg ci ñoom moo tax bañ dajee ci biir seen biir waxtaan ñee indi kopp ñoom ñu indi kopp ba kopp yi bari ñu waxtaan seen biir waa politique koo yokk lañ daa indi ci kopp waa li ni seet la ñu daa jëlee kopp ñu jënd ko suukar indi ko fi toll ren yii waa politique koo indi nañ cent mille coppacité cent mille coppacité indi nañ ko waa rémi ni waa waa waa bunt bi ko ci njiit sëñ Xaadim Mbay waa ni nit Mérissia waa ni nit sëriñ Dame Lay mi nga xam mu ji daayira ba ci kilifteefu sëriñ Cheikh na Mbàkke ak sëriñ Cheikh Kanji sëriñ Dame ji daayira foofu ñoo tàmm na ñoo si démb and nañ fi 2400 tonnes 2400 kilos donc 48 sac waaw waaw deux euh, quarante huit sacs yoo xam ne cinquante kilos la. Mhm, mooy deux tonnes quatre cent. loolu at nañ fi dem ngir tàmbale ko seen liggéey. ku nekk nag ñu ñu bëgg um koor nga tàmbalee 48 saako yu 50 kilos mel na ne yow xam nga ne lii la tax a jóg ci yéen a jañ wax ne moom lañu am fa seen sukkar moom waxtu nekk lu man di ko ci yokk kon loolu waaye waa rim ne waaye nit loolu tamit sëriñ ma seer jaane ñu ngi ko soñ ci lam defoon ci liggéey bi France dañoo am lu ñuy wax association mu xam ne bu tax xidma te kenn ku jàmbaar ci liggéey bi nekkoon fii di sëñ Hamdi Moussa Mbacke yàlla dogal mu dem foofu di eggalam njàngam moo njiit la waaye nag mi ngi ko ànd ak këloon président fédération Cheikhul Khadim ba di Alaaji Bamba Caam di ko baax ko am passeef ak ñi nga xam ne ñoo yàgg yor liggéey bi yàgg caa sonn sëriñ Modou Kara Samb ak sëriñ Xaadim Njaay ak sëriñ Bousso mi nga xam ne mooy kilifa ga imaam ci taxawaay bu rafet ak yaatalam rafet waa France yooyu waaye tamit nga xam ne yàlla dogal na bi ñu màggalee Tuubaa ba noppi wax jafe-jafe yu ñu am ci yi ñu war a def muy baax na jafe-jafe gi mu am ci wàllu ndox ñoom bu ñu ko déggee lañ walanteeru ñëw bañ dikkee ñu fay ñu koy dox ngir def ko forage yàlla defalal leen tawfeex lañ foogoon ne moom mooy mën a dox forage ba bañ demee ba ci biir xam ne bokkute la ko mën a dox waaye diw dañoo jaajuwaat fu tubaab seen ni mu a baaxee ni si tubaab gën a baax ngay def ñu def ci forage boo xam du yem ci bàqeexa dong la ñu nekk ci gox ba ñëpp dañuy mën a jariñu ci ba ba ñu ci lëkkaloo ñu ndox mi ñi ci yëngutu ñëpp noonu lañ doxee tax na nag loolee moo tax daax na liggéey ba egg na fuñ ko fëgg wutoon moo tax loolee ñoom it ñu ngi ci tàllal loxo bépp taalibe bi boo xam ne mën nga caa barkeelu nga ne ñoom liggéey bu forage boobee ñu def ci Bàqaa ngir bu bu eggee ba Bàqaa jafe-jafe ndox yi jeex ñëwal foofee tamit jafe-jafe jafe ndox mën a jeex kon loolu ñu ngi ci bàyyi xel euh, liggéey boobu nga xam tàmbal nañ ko sàmm bu mu tax a joxe ne ci digal bu ñu demee ci Espagne am na koo xam ne mooy coordonné liggéey daayira mu xam ne taxin ma di bàyyi di ko coordonné coordonné bu rafet ci yaatalam ci yitteem ak maanaam bàyyi yitteem yëpp jëmale ko ci daayira Moukhaddamatoul Khidma kon suñu bàyyi daam ñu soññi na nga daa def nga defee ko ne boo ko defee rek lépp dana jàpp waaye nag jëwriñ ki nga xam ne mooy jiite association Moukhaddamatoul Khidma di sëñ Assane Diop foofu ma taxaw fi tuuti ndax sëñ Assane Diop day jàmbaar joo xam ne koo ko xam-xamoo ko daayira Moukhaddamatoul Khidma mm-hmm. ci yitteem subaam bëccëgam ngoonam yëpp ci li yëwénal liggéey bi lu koy yaatal sëriñ Assane Diop ma nga cee xëy ma nga cee gont kon sëriñ Assane moo nga xam ne moo jiite euh, fédération euh, moo jiite association mu xadamatu xidma bu Espagne ak euh, moom yi nga xam ne noonu lañ ko tax tamit yeneen réew yu bëree bëri ma doon wax léegi ci Afrique gi sëriñ ma fari jaay mi nga xam ne mi ngi ci doon mm, participer di taxaw taxawaay yu rafet rafet moom it ñu ngi koy sant bu baax ndax ba dafa liggéey bi yaatu ci Afrique seen Moussa Ndiaye a egg waaye waaye saa at yii di ko indi ci biir jumaa ji noonu lañuy bu toogee ba yàgg dajalewaat seen social boo xam ne ñoo ko fopp tasaaree ko seen bopp tasa joxe joxe ko ndax si mm, liggéey ko mu doon liggéey bu yaatu yaatu yaatu doon liggéey bu yaatu yaatu kon nag suñu asan ñi ngi ñi ngi lay sant tuddee dama xam ne xen ma waaye li ngeen di jox nit ñi nag fu ñu leen mën a joxe ngeen dem leen ko seen leen seen bopp tamit teewul nga xam ne lu aju jumaa ji ko ko def daayira Moukhaddamatoul Khidma moo ko defal dëgg la kon yooyu yëpp ñu leen di sant di mi nga xam ne moo jiite mooy président bi ci euh, taxawaayam bu rafet ci daayira Moukhaddamatoul Khidma ak Alaaji Abdou Ndiaye Touba il Kanari taxawaay bu rafet rafet mag la moo xam ne du tay du tay waxtu nekk lu man mi ngi koy def jëmale ko ci leer moo xam ne xam ne ak seen Xaadim Touré bu nekk pal liggéey bu rafet rafet lay def foofu ci xaj ci buuf buuf njaboot gi orienté leen a noppi yàlla xiir gu noonu nit ko dëggu ko bëgg lu baax nga xam lu mu la wax moo nekk ca moom te lépp liggéey bi jaral ko lu ne bëgg ci benn caaxaan kon sëriñ Ali moom it ñu ngi lay soññ yaa ngi nga nekk lépp waaye nag sëriñ Daam Xaloo mi nga xam ne initial nañ ko doon président fondation Xaadimu Rasuul bi moom it mook daayira bi mook mook ñi mbokkal liggéey bi yëpp ñu ngi leen soññ ci lañ daa def euh, ci képp koo xam tudd na tamit ci bu ñu tuddee ñi rek day yóbbaale ñi ci des ñepp foo mën di nekk muy benn nit buy participer moo xam ku jaar ci association ko xam ku jaar ci daayira noo ci tudd rek bu ñu tuddee jëwriñ ñi rek na nga xam ne sa sant sa cant yegg na ci yow ngërëmul daayira yegg na ci yow ñu dem ba abi dañ fa am fondation Moukhaddamatoul Khidma di fondation bu am solo ba sosu boo xam ne li li muri baaxool moom la ñore jëf ci bañ a wax fondation am moom bu jëf ji bare ñoom waaye bu wax ji néewee moom du ñoom ndax dañuy jëf li ñuy jëf ci boolewuñ ci wax doo dégg ñu wax dara waaye dañuy jëf la ñu war a jëf kon nag fondation Moukhaddamatoul Khidma boobu te sëriñ Cheikh Jonn jiite ko ak sëriñ Hamsatou Lam ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm seen taxawaay yu rafet yi ngeen amee ci dayru ko dama xin ma ci wàll yëpp nag ñi leen di sant bu baax di sant waa Foncab mooy Serigne Fallou Samb ba tey ci Amérique seen taxawaay bu rafet ba ngeen daan taxaw ñi ngi leen ci sant bu baax di leen soñ di nekk ci kanam euh, ñu nekk si seen sénaat yi di Serigne Modou Mamoun Guèye moom it taxawaayam ci dayru ma dama xin ma rafet na ñu ngi koy sant di ko soññi na ko daa taxaw mu taxaw ni di sant tamit soxna Sukay Samb ci pas-pasam ci jigéen yu am solo yoo xam ne taxaw na taxawaay yu ñu mën góor kon nag ñu ngi sant mbokki jigéenam ya nekk foofu te nag moom ñu def na moom jàpp ci liggéey bi te xam ne liggéey bi moom amul góor amul jigéen pas-pas rek moo ci am solo waaye suñu toll bu ñu demee ba Belgique sëriñ Abbas Dieye ma ngay coordonné liggéey bi ñu ngi koy soññi di ko sant ci li weesu Portugal sëriñ Bay Sow ak sëriñ Abdou Sey ñu ngi leen sant ci li weesu lépp di leen soññi ci li ci kanam Hollande sëriñ Xaadim Mbegere ñu ngi koy sant ci li weesu di ko soññ ci li ñu jublu si Turki sëriñ Hamdi Gueye ci li weesu di ko gërëm di ñu ngi koy sant ci li di ko soññ ci li ñu jublu si Allemagne sëriñ Saliou Gueye moom it ñu ngi koy sant ci li weesu lépp di ko soññ ci li ñu jublu si ñu ngi sant mboolem ñi nga xam ñoo nekk diggante Grèce ak Norvège yëpp seen taxawaay bu rafet nga xam ne ñu ngi manko di ko taxaw ci daayira mu xaddamatu xidma ñu ngi sant tamit Angleterre ci jëwriñ e, sëriñ Fallou Diop mi nga xam ne moo fay taxawul liggéey daayira Moukhaddamatoul Khidma ak sëriñ Abdou Akim Mbaye te am ci taxawaay xam ne ñu ngi koy taf te bëgguñu lenn lu ca feeñ taxawaay yu rafet yoo xam ne dañ koy def ngir jëm sëriñ Tuubaa rek kon sëriñ Fallou Diop ñu ngi ko sa nga mi nga xam ne mooy président fédération Xaadim bi ak sëñ Ablaye Dieng Fonse bi moom ak ak sëñ Dame Gueye mi président fédération Saw Xadim ñoom ñi ngi leen jotal ay cant ak i ngërëm ci turu daayira mu xadamu taxin ma waa Danemark yëpp ñi ngi leen sant di leen gërëm seen taxawaay ba rafet su fet sëñ Ndaw Baye Fall di ko am pastéef ku jàmbaare moom ñi ngi koy sant di ko gërëm ba en Amérique la tey di Brésil sëriñ Ahmed Thiam Mohamed Thiam ak ay mbiru jaxate mi nga xam ne mooy taxawu liggéey bi ñoom it ñi ngi leen jotal ay cant ak i ngërëm ca la weesu di leen soññ ci li ñu jublu si Argentine Serigne Mor Talla Sall may jëw nit ñu ngi koy sant ci li weesu di ko soññ ci li nga xam ne dafa jublu si kon dafa mel ne Serigne Fallou euh, wala Serigne Abdou Lahad fekkee fàttuma kenn lii mooy li xam ne daayira yi nga xam ne ak réew yi nga xam ne siti nañ leen seen jëf di ànd ak ñun ci daayira Moukhaddamatoul Khidma léegi nag waaw Italie waaw wax naa ko Italie sëñ Daaru Touré ak ñi ma àndal liggéey bi yëpp ci laa tàmbalee bu ko defee liggéey bi nag sëñ Fallu di social bi di liggéey la boo xam ne liggéey bu yaatu la boo xam ne saa bu ubbee daayira mu Xaddamatul Xidma day tàllal loxoom ànd ko ñëpp loolee tax na nag tàmbale nañ di tàll suñu loxo képp koo xamante ne am nga yéene barkeelu ci liggéey bi numéro boobu daw ci écran bi di 77 686 13 13 na ngeen xam ne am na Wave am na Orange Money te mooy numéro bi daayira Moukhaddamatoul Khidma bi nga xam ne lu ci waay yónnee dana ñëw ci daayira bi directement képp koo xam ne bëgg nga ay leeral yoo xam ne tamit bëgg nga ko la ko leeral ci liggéey bi am na ñaari numéro yoo xam ne boo ci jokkee dañ la ko leeral mu 77 209 77 32 wala 77 635 08 80 loo bëgg a jaarale ci liggéey wala nga a leerlu ci lii nga doon wax ñun ñii boo jox ko numéro yooyu dañ la ca jot ay leeral ñi ngi sant nag jëwriñ ñi nga xam ne ak daayira yi nga xam ne daayira Seexul Xadim lañ saa bu koor gi dubee daayira a i ngërëm benn benn ñi fi ñëw tamit yi kilifa ñi ngi leen jotal ay cant ak i ngërëm benn benn yi nga xam ne tamit ay autorité lañ fu ñu mën mën a doon nekk ci gox bi wala ñu jógee ñu nekk ci région bi wala ñu nekk ci réew bi fu mën a nekk te bàyyi seen yitte di ñëw fi ànd ñun ndog yi ñu ngi leen sant ñu ngi leen gërëm képp koo xam ne na saxawaay daal jëmale ko ci tey daayir Moukhaddamatoul Khidma ñi nga xam ne ñu ngi lay jotal ay cant ak i ngërëm ndax am na ñoo xam ne seen pëstëf dañ cee ràññu ko lool te kenn ko ko kon a xam ne ne Euh, jëf ji day jëf joo xam ne jëf ju ko la yoo xam ne ay jëwriñ yoo xam ne seen jëf-jëf da cee ràññi ko lool ku ci mel ne ba Basiru Xaadim Awa Ba sëriñ Basiru si Xaadim Awa Ba ku am pas-pas la ci bi damaa jëlee la jëmmam sax waaye képp koo xam ne bu la bu la bu la bu la bu la bu waxee yow nga jàpp ci bi sëriñ Basiru Xaadim Awa day wax ak waaye tamit nag maître ma di ko ñang di tëral si ku bëgg liggéey bi la di ci def alalam di ci def taam di wut ay nit ñoo xam ne dañ ciy nag ñu ñi ay jóoriñ lañ waaye ki nga xam ne nag mooy nday alxuraan daare alxuraan yi mën a siggil alxuraan di sëñ Ablaye Dia ñu ngi koy jot ay cant ak ngërëm ak i ñaan mm-hmm. li mu yéene liggéeyal si am xalim yéeni ko liggéey lislaam yàlla sunu borom kàttanal ko ba mu eggale ko ndax ku am yéene la ko rafetal la ku bàyyi xel bi daayira Moukhaddamatoul Khidma xoolee sa bët gis fa loo xam ne boo ko fa jëf képp koo xam ne yaa ngi tax nit di jëf ci liggéey bi ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm képp koo xam ne tamit dégg nga liggéey bii wala nga seetaan ko te bëgg cee jàpp na nga xam ne daayira bi tàll na loxo lépp ñëpp la ku nekk sa wàll nga ci bàyyiwuñu kenn di sant bu baax jàmbaar joo xam ne liggéeyam bi waajuram doon tàmbali fii doon ci de dellaa ji Babacar Kebe aw na yoon wa ba tàmbali ko ngir jëflante ko ñun bu soxna moom i Kebe moom it jëf na fi jëf ju rafet koor ñu ngi koy fàttaliwaat loolu di ko soññuwaat ci ren jii ak keneen ku mel ne ñoom ci tudduma la lim dafa mënta weesu ñëpp rek waaye na xam ne ku ci jëf ñun lantunoo rek lañ mm-hmm. sant gi lañ ci waaye ahmadu bi tëdd fii moom liggéey te ahmadu moom ku mu yëg wala ku mu tudd kaddu ku la tudd wóor laa metti ku fi jëf ahmadu tudd na la kon ñu ngi tàllal loxo ñëpp ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp ñu fas yéene waajal koor gi te képp ku ñëw nga fas yéene ànd ak yar ak teggin ak um dal te xam ne barab bii barab la boo xam ne ñi fi nekk sàmm war nañu moo leen fi bàyyi sàmm kenn ku fi ñëw doo am benn jafe-jafe ba génnaat ba dem loolu leen fi bàyyi loolu nag amul xëj amul seen loolee ni ngi ñaan ne nga dimbali ñu ca ba boo fi ñëw bu fi def sax lu ñuy tere ba naan la bàyyi lii wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf euh, Cheikh am na solo lool ci kàddu yi nga xam ne dégg nañ ko te muy ay cant yoo xam ne ya fii day émission waaye bu du toon émission danañ tudd ay tur yu baree baree bari ndax lu toll ci soixante onze million ku ko dajale ci weer ña ko joxe sant leen jaadu na ci Cheikh Abdoul Ahad kat noonu woon du ma sant ku ma defalu dara waaye ku ma defal dara nag danaa yëkkati cant ba nga dégg na sant naa la waaye nag jumaa ji moom ku ci dugal dara dafay mel ne waree su sant sax yow yaa war a sant ndax nag fab sax alal mu dugg ci jumaa ji moom yombut ami milliard yomb na waaye def ko ci jumaa yi Sëñ Tuubaa ji moom yombut moom alal ji dugg ci jumaa ji te sëriñ ba ko doon tànn nag moo ne ci penku jumaa ji ba tey du fi jóg mën nga fee am yéene def fi waaye bu alal ji melut na neex sëriñ bi du tàbbi ci liggéey bi kon macha allah ñi nga xam ne wax nañ ne ku dogal benn jullit ci doomam tàndarma képp am yool bu toll ne ba kooram googee mu woor te du yàqu kooram kon nag ku dogal lu mat ñeen fukki junniy nit yoo da ngaa topp ci weer di leen dogal ba weer wa jeex ndax foo xamante ni bu la jëfandikoo nañ frek ci wàllu mburu ndokk ba ko sëñ Abdou bu sa waxee ndax xam naa ne bu ko mbàkk mbàkk waxoon tey jii dana xaw a doy waar waaye juróom benn fukki junniy mburu 67000. Hmm. loolu neexut a tudd sax ci. 67800. fukki jun loolu de ne juróom benn fukki. loolu doy na daal daal 67824 baguette loolu xam naa dina ko andi loolu daal moom kenn xam naa ne déggagut man yaakaar naa mu xadimatul xam ne des dina war a wutal ab fuur. yaa wutal leen ab fuur daal boole leen ak ñi ñu leen jox fëriñ moo ci baax ndax loolu moom neexut a jëfandikoo kon sëñ Maxtaar kan moo yor lu jëpp ci wàllu organisation sëñ Maxtaar lii ñu wax lépp nag day dellusiwaat si loxo nga organiser ko yaay organiser conférence yi yaay organiser ndogo bi yaay organiser lépp sëñ Maxtaar daa mel ne yëf yokk na ndax dañu wax ne bu njëkk yokk bi jëm kër sëñ Fallou nga daan tàmbalee ci bunt bi ci digg bi ba ba ngay dem ca mujj ga soowu ba léegi dem na ba li wër yokk bi lépp lépp loo xam ne sëñ Abdoulaye yokkoon na ko fi rek nit dana fa toog moo jàppal rek ne lu sëñ Abdoulaye yokkoon ci jumaa ji des na ko lal ay tappi nit toog fa ñu war laa jox ab palaat la nekk ci tappi bu njëkk ba mujj ba ñëpp ay nuróole ndogu te kenn du manqué te lépp loo xam ne jaadu na ci ndogu des na ko ci def loolu nag yaa ko war a organiser bisimilah sëñ Muxtaar bisimilahi rahmaani rahim barakati xaadimu rasuul bi di ci am mbégte lool ci waxtaan wi jiitu lépp suñu nuyoo ak suñuy ziyaare dañ koy sof ci nuyoo suñu jëwriñ Sëñ Ahad mi nga xam ne mooy kilifa jotaay bi te mooy coordonnateur bi di sant baax ñaar ab laaj yi ci seen waxtaan wu yaatu wi te am solo lool ñun nag dañoo dénk ñoom li ñu nas te muy liggéey bu rëy boo xam ne nii boo xamee départ ba da nga xam ne yokk gi ëpp na li xel di xalaat ndax ñun ñi Sëñ Tuubaa baaxee woon bal fekke woon départ ba jàpp naa ne xam nañ ne mbir mi avancement bi gaaw na lool wante mbirum Sëñ Tuubaa noonu ma demee rek ndax borom bi boo koy fay te borom bi bu koy fay li mu koy fay day jéggi ki am xel ndegam nag ay millions yu bare bari la liy laaj di ko def ci aw weer day jaar ñuy dégg donte mbir mi leer na waaye seen xam naa loolu fu mu dugg loolu day bari lu koy lu mu koy laaj di bari wax naan ndogul mburu rek ak kafe nu mën a jël xaalisam noonu loolu nag bu fekkee ne yaa ngi teew jumaa ji mën nga koo xayma ci say bët mën koo xayma tamit ci sam xel ndaxte danoo xool daaw ñetti bis yoo xam ne nii dañ koo tànn ci biir weer wi ngir doon xayma nu ñuy def ba suukar si ni jëfandikoo mu gën a wàññeeku te nit ñi dog loolu xawoon naa laal lu xaw technique yi ndax biñ njëkkee xool bis boobu danoo am 32 tarmuus yoo xam ne dafa wuute de varié mooy ci bisaab ci kafe ci meew ci ga tënkral 32 tarmuus yoo xam ne nii def na lu tàng te mooy café meew ataaya ak jinjeer ataaya sax mën naa may tudd ma moo gën a mag ak bisaab tarmus bi boo koy xayma da am 40 litres ngay am kon bis bu njëkk bi ci xayma bu njëkk bi danoo gis nekkoon am na 1280 80 litres yoo xam ne nii 225 kilos moo ko suukar te loolu mooy 4 sacs litres 5 kilos. jour bu njëkk bi bi njëkk xayma ñetti fan loo xayma weer wi ñett ci ñetti xaaj pour xool ne lii consommé bu nit ñëwee bëgg koo teg laaj teg teg si laa wax nii mën ko teg loxo daal ñu ne kon quatre sacs am na yoo xam ne nii fu ñu kat quatre sacs te loolu mën ko xam mooy bis nga xam ne mooy ab atrata wala ab wala wala ab alterné ab alterné wala ab plâtre ñu xool yeneen yeneen suur mooy ci digg bi ñu gis ne am na 31 thermos yu 40 litres nekk 240 litres ñu ne suukar mu nekk 256 kilos jox ñu 5 sacs 12 kilos mbokk yi ni ma koy waxee sax suur ne ñoom boo leen ànd ak ñoom liggéey ak ñoom léegi sax nga leen xaw a yërëm leen li ñoom ñu def benn tour benn benn tour xool ne nit ñi ci dogu bi am ñu dugg te ñu ñu ko dugg ñoom ñoo xam de. waaye gis na ni couloir yi fees na te di ñànki bi jumaa bi doguwul ñu ne kon léegi nan xaar te loolu ci biir biir koor gi fekk ne bi budget yi départ pare ñu ne li daal bëgg ñu nit ñëw fi daal te àggut ci ndokkaay bi ñu mel ne lay mer ñii di yóbbu ñi moo indi ñu ñu leen a élimé bi yokk sàppe yi mu wër jumaa ji maanaam couloir am waaw ah, nga xam ne kon da ko defal ngir saafara mm-hmm. waaye fees na ba waaye feesaat léegi nag loolu day yokk day yokk ñett day yokk ci matériel bi nga doon jëfandikoo da ko yokk force dëgg la waaw da nga yokk indifiti liggéey force ba pare sa xaalis dana yokkaat moo tax ñu ne bi ñu xaymaa ñu am cinquante six thermos yu quarante litres nekk deux mille deux cent quarante litres cinquante six thermos waaw ñu am six sacs vingt loolu bu fekkee continué na 6 fois 30 da ngay am ay 100 nangam 160 wala 160 saako. te ñun ñu ngi ko programme ci 5 sacs par jour. mu nekk 150 sacs loolu mooy mosu mosu mooy suñu dépasse mu romb na ko wéy. romb na 6 sacs par jour wéy. léegi loolu mooy war nekkoon léegi liggéey bi ni muy avancé ëpp na te waxuma la tàndarma nag waxuma la yow ci des. damaa jël tàng rek laa la wax. loolu nag moo tax kon. ñi nga xam ne ni ñu ngi participer ñu xam ne li ñuy def progrès na lool waaye fi jëm moo gën a yaatu. Mm-hmm. te léeg sax beneen cas da lay arrivé da ngay nekk ci biir ndogal ba ci biir ba ci digg bi ba ba bàkke na am lu jógee bàqe ah oto yu bari foo jaar jox ñu ndog mm-hmm. ak ñi nga xam ne mën ñoo toog ci biir nit ñi nga ni jaar lu yàkkam dem loolu lépp nga xayma. dangay gis ne bu ñu nee ñeent. ñi mënut toog da nga leen di jox ndogu ñu yóbbaale. ah nooy def damay ñibbi jëm fuuta léegi sax dañ ci àgg sax da ngay àgg sax yow ñoom dañuy àgg ci da lay force sax yow rek la la jox ko tam mu dem mais bëgg ñu kooku génn ndogu mun jox tam suñu wax am am ko wax na la misali dana ma maa fay tarmus ma wax maa koy fay dama ne ko du dem mu ne ma maa fay tarmus loolu mooy la loolu mooy ñoom kon lii def nit nit si ànd na kon li des mooy ñun ñi nga xam ne ñoo fi ñëw jël si ndogale muy ñaari xaaj ñi xam ne ñoo ñëw ci waxtaan bi teel la ñëw loolu la gën ci ñoom mooy bu ñu ñu xam ne ndogu lépp lay benn ñoo nduróo xaccoo baa njëkkante bi gën koo wàññi te waxoon naa ko daaw ñii rax ci biir tamit ñu xam ne ñun bawuñu rek topp ñu rek ndogu li ba fàtte nag war may jumaa ji di koy bokk kon ñu fi ñëw ñëpp su la waxee léegi yar bi ak teggin yi ak dal gi nañ ko jiital ndaxte koor mett na lool waaye dem ba war nag ñu loolu dugg rek moo gën a metti mhm. te fekk na yaa yaa xotti war maj te ñun nag war maj moom duñ may kenn na nga koy xotti nag ndax dañu ko sàmmaloo mhm. kon nañ ñëpp ànd ak yar ànd ak teggin dugg ci ran génn ndànk bàyyi njëkkante bi te saali tamit ñu soññ baax suñu mbokk jigéen yi ñu gën a yokk seen pasteef ak seenu dal ba liggéey bi nga xam ne ni moo war a jiitu ci màgg ci koor gi muy raxas suñu bagaas yi moom itam ñu sopp ko baax a baax ndax foofu tamit mooy liggéey bi ëpp solo ci liggéey bi te ñu koy day day xaw a néew kon ñoo ngi sàkku ci mboolam soxna yi ñu gën seen effectif ngir ngir ne liggéey ba ñuy foofu noonu loolu loo xam ne ni mënut a ñàkk te lu am la xam naa kon ci tënk rek loolu laa bëggoon leeral ci wàllu ci wàllu ndogali ak ci wàllu nekkin bi. lu des nag. Euh, naafile gi. Euh, sëñ Matar bala ngay ñëw ci naafile gi ndogu li da tënk tuuti loo xam ne wax nga lu tàng la cay dem ak yi doon mais ndogu li ne du kafe rek ak tàndarma. Mhm. waaw na fromage am na saucisson am na meew am na caaf. Mhm. yooyu it loo xam ne ñu seer la te jàppal ne lu ci nekk amut bii palaat nga teg ko ci bee bàyyi ko jàppal ne soo dee dogal ñeenti junniy nit. ñeenti junni nit yëpp kenn ku ci nekk da nga gis ñett lii ma lii ñu lim. waaw ak ak boisson bi. loolu lépp mu ngi ci mun ngi ci rapport bi. aussi mu ngi ci mu ngi ci mu ngi ci bopp tamit. waaye dama tënk rek. dama tënk ndaxte suñ dee wax ne koor du wax rek ci ndogal kese kese dañuy wax ne ñun bu dee ci wàllu pression beeg. day génn day génne meew bu sedd des na génne tàndarma ci ñaari xaaj yëpp gruyère lanson fromage simple ak ñi nga xam ne du naan lu am suukar loolu lépp dees koy xayma mën na ko wax par par benn par benn sax bu neexee mën na wax lu keneen la lu keneen lu cay génn par bis loolu yomb naa yomb naa yomb naa yomb naa def ndax am na ci. documents yi nekk fépp xam ne ba ngay xam ne bés bu ne li ngay génne ci yokk yëpp ngay xam loolu maa ngi njëkku ndax man xam naa kii bett waaye mas naa nekk loolu mooy mooy tax ñu xam ñu xam li ñu xam ne li ñuy financé carrément ni mu demee te loolu mooy mooy mooy itte ji dëgg dëgg dëgg dëgg wala danaan danaan yéegul. am solo kon sëñ sëñ laa tudd na. cent sept mille pain. waaw. mën nga am tàndarma. waaw. Ah. trois cartons yu dix kilos. par jour. presse à dix cartons. par jour meew liquide dix cartons. amal paquet bi da am un carton. lanson da am deux cartons. grillé da am deux barres. gâteau da nga am trois paan. bleuet da am deux paquets. ndox mu butéel da am quatre-vingt-six bouteilles. loolu nga am par détail nga xam ne boo génnee trois paquets de rendement mooy trente kilos soo génnee dix pressia yi dix carton carton bu vide la muy quatre mu nga génne ko. muy quatre vingt nga génne meew liquide mais benn carton bu douze. génne ci dix paquet dix carton nga génne dix carton. de vingt quatre. xanaa paquet bi bu bu kilo cinq cent bu libre bi. dañ ci génne benn carton lanson bu gudd bi wala bu gàtt bi bu ci deux cartons ci génne par jour gruyère nga génne deux barres gâteau trois pans bu loolu yaa deux deux paquets vingt quatre yi ak quatre-vingt-six bouteilles yi ndox xam ne mënatul léegi géntu leen ndox ndox sa géntul léegi loolu moo lay jox li ngay génne te loolu mooy tax nga mën a am jinjeer huit kilos yi jinjeer meew poudre dix kilos suukar 6 sacs mouchoir 8 paquets caaf 3 kilos fromage simple fromage euh, simple 1 carton beurre Jabela bi 6 beurre 5 kilos yi gis nga ak ci génne 6 emballage bi am na yi 1 carton ndox sax yi nga ko nga des bu ndox jeexee nga ma ko restitué 40 paquets café 12 kilos lii mooy génn par jour bu ne da nga ko loolu ci jumaa ji mooy jur loolu ma wax léegi ne nga xaaj ñetti parti gis fu fukk fan yi nga xool loo xayma gën kaa bari bu mu ko def loolu mooy liggéey bi nga xam ne nii mooy mooy am ci commission d'organisation te loolu nag mbooloom bari ñoo ko taxawee waaw mburum tamit ñaar dagg la loolu boo jëlee boo jëlee effectif mburum boobu boo jëloon 77 par 7 rek 67 000 waaw da ko dagg ci digg bi 67 fois 2 la ilaha léegi loolu loolu boo ko daggee mën ngaa xool ne wuru ko woon wax waaw loolu loolu mooy moo lay jox loolu boo ko boo ko set nag day jox ay neuf mille huit cent nangam soixante-sept mille huit cent vingt-quatre fois nga am ay neuf mille nga am boo divisé ñun àgg na ki neuf yu teg moom boo divisé boo divisé ifiti nga am mburu mi mburu mi centimètres la sept centimètres sept centimètres waaw boo xoolee yooyu boo boo ko divisé nag da lay jox ay neuf cent nangam. yoo xam ne dañuy sept centimètres wala soixante dix centimètres. soixante dix centimètres. xawtul nga dem Ndiarème bari ngay ngay ngay dem Ndiarème. xawtul nga dem Ndiarème loolu en tout nag. man leen ba gâteau beeg nag yu mel noonu. kon mbir mi la mbir loo xam ne nii li ko waxee léegi nii liggéey bi rëy na waaye ki koy defal xam na ko. kon nag ñëpp seen i yokk seen i seen i seen i ak seen i liggéey ngir liggéey mën a jaar yoon. ci tënk rek maa ngi am foofu wasalaamaaleykum wa barakaatu. macha allah jërëjëf euh, sëñ maxtar yaakaar naa ne bi ma gisee lii rek sëñ bi mi ngi def ne mburu mi mën nañoo jàpp ne cent trente quatre mille personnes ñoo koy jëfandikoo cent trente quatre mille personnes ci soixante sept mille huit cent nangam euh, pain yi ca loolu nag boolewuñ ci yu mel nii nga xam ne taaj nañ ko fii ak caaf la may àndal caaf ne nga trois kilos la ñuy jël par jour euh, yaakaar naa ne ak fromage gruyère baak ya ca aju yëpp nga xam ne ndogali moom dana la wóor na daañ la taajal ci jumaa ji ndogaloo xamante ni bi boo demoon sa kër it mënoo ko weesu waaw te ñëpp koy maasale te côté yëpp lay jaar kon loolu mooy teg tegtale ne suñ la nee dépensé nañ ci 62 millions et quelque du xam naa sëñ ji léegi may xool ndax communication bi moom dafa mel ne fi mu toll temb yitteem yëpp mooy ay caméra ak lumière ak ordinateur euh, daa mel ne fi ne foofu la toll xam naa gars yi nga xam ne baax képp koo xamante ne bii surtout euh, caméra nouveau yi nga xam ne ñooy soog a xew moom nee na yitte woon na ko baaga ci lool te it nag ci la ñuy jàllalee bayaan bi ci jumaa ji ci la ñuy jàllalee euh, julli gi ci la ñuy jàllalee com waxtaan yi ci la ñuy jàllalee gàmmu gi ak màggal gee ci aju ba ci ba ci sax ay ay ay ay ay ay micro cravate yooyu yëpp sëñ ji li daa mel ne nee na mi ngi ci soññ gaa yi ñu dimbale ko ci bu baax a baax euh, xam naa ne moom communication bi moom daa mel ne ñor na ko lool kon xam naa ne ci tënk damay dellusiwaat rek euh, minute minute ndax daa mel liñ liñ amee ci waxtu waaw communication waaw kon señ laat mooy ñëw ci communication sax maa ngi ciy jiitu ndax na sëñ jil damaa tàllal loxo ay yoon daa mel ne am na yu ko ñor waaw tey nag ñu buñ faat li ëpp solo mooy lii nag mooy waqf gi sëñ Mourtala doon woote maanaam ñii taxawal li nga xam ne dañu budget cent million lañ teg ngir koor gi yoruñu ñaari salaamaaleykum waaye li wér tuwul mooy bala ñoo départ fenn ñoom ñëpp kenn ku ne da nga làmb sa poos hmm. joxe ko ci te boo ko ci joxee ñu jox la rosi bu tegte la ne li nga doon joxe agsi na suñ joxee jullit yi na leen kaay leen ñu àndandoo nag dajale li am dimbalee ko jullit yi nga xam ne ñoo ñu gën a néew doole ngir ñu mën a dog dogin wu jekk ndax it nag defar sa ndogu ba mu jekk ca sa kër nga bàyyi sëñ tubaa ci wetam moo xam ne moom mii mu fii lay doge moom sëñ tubaa nga ne ko nag sa penc mii moom kat wala sa ëtt bi gaa yi fi dog ndogu ndogu lu gën loolu yaakaar naa ne gënut te ñëpp jàpp nañ ne ndogul kër sëñ tubaa li moo war a gën a jekk ca ndogul mooy fi sëñ tubaa nekk nag fi la ndogul war a bare ndax ñu baree bari dañoo jóge ci at ñëw na ñun ca sëñ tubaa la ñuy dogoo fa sëñ tubaa ñuy dogoo mooy fa jumaa ji la ñuy dogoo kon nag ñooñu moom sëñ Tuubaa war na leen dogalu am solo ñi ciy def seenu ñàq war nañoo santaane bu baax baax mu jëm ci wàllu communication eh, bala may agsi ci nga xamante ne fii la ñuy yëkkatee jotaay bi Cheikh Abdou Lahad jërëjëf sëriñ Fallou jërëjëf tamit eh, sëriñ Abdou Lahad eh, maam Asta mi wax sama ginnaaw ak sëriñ Mokhtar Kane sëriñ Abdou maam Asta moom maa jàpp ne su réer a gutoon sax du du gisee nii waaye tey moom moom macha allah ñàkk reer gi feeñu ci. Euh, su ko defee sëñ Maxtaar Kan tamit euh, lim indi am na solo jàpp naa ne lim indi ci wàllu technique ci wàllu liggéey bi su ko indi woon tamit ci wàllu commission yi nga xam ne ñoo composé wu ci biir liggéey bi tamit loolu tamit lu day organisation bu yéeme boo xam ne xam naa ne dimbalul sëñ bi mi ngi ci xëy na bu ñëwaatee dana ci ñëw su ko defee beneen bànqaas bi nga xam ne am na solo lool ci liggéeyu daayira Moukhaddamatoul Khidma ci koor gi mooy wàllu communication mhm. ndax euh, Euh, dañuy yittewoo lool topp yi nga xam ne mooy xew fii ci Touba rawatina taalibe yi rawatina ci jumaay ji di jumaay Serigne Touba te xam ngeen ne koor euh, nit dañuy yittewoo ngir yokk seen xam-xam ak seen diine ba tax na loolu tax commission communication bi nga xam ne sëñ Maxtarkat bi moo ko jiite ci coordination sëñ Abdou Khadir Bousso mii euh, di def liggéey bu ama am solo sëñ Abdou Lahad indi na ko léegi ci ci ci bi ci ci ci rapport bi léegi seen seen taxawaay te xam nga ne moom mook euh, culture daanaka benn lañ moo tax ñoom ni euh, rapport bi leerale li ñu liggéeyoon daaw li ñu war liggéey ren am na ay ay yokkute yu am solo yoo xam bëgg nañ koo gën a gën a gën a gën a gën a yokk incha allah moo tax communication incha allah fas na yéenee diviser en direct mboolem waxtaan yi nga xam ne ñooy tàmbali 17 heures et demie ba waxtu des waxtu dog des minutes. Mm-hmm. incha allah dañ koy direct ci MKTV CMTTV ak site internet bépp boo xam ne bëgg nga lëkkaloo ak wala nga jël signal signal neutre la li ñuy wax signal neutre mooy am. Mm-hmm. maanaam signal boo xam ne du am benn logo danañ la ko mën a jox ak foo mën a nekk ci àddina bi ndax Moukhaddamatoul Khidma liggéeyal yàlla ngir jëriñ jullit yi rek moo ko tax a jóg. amut lenn lu nekk ci ginnaaw lu loolu. moo tax jumtuwaay eh, taskatu xibaar bii ci jumaa yi li ko tax a jóg mooy fépp fu ab jullit nekk mu mën a jariñu ci waxtaani diine yi nga xam ne mooy am fii kon loolu tamit communication waajal na ko kon képp ku may dégg wala nga may seetaan waajal nañ benn signal neutre boo xam ne danañ ko jox bépp site internet wala bépp télévision boo xam ne da ko jël ni ki doon noonu la ñuy directe waxtaan yi di directe dogu yi ni ki doon tamit naafila yi noonu lañ koy direct naafila ci guddi gi loolu tamit képp koo xam ne bëgg nga koo jàllale euh, mën nga koo bàyyi xel. noonu tamit la lëkkaloo ak làmp Fall télévision loolu tamit du lu yàgg yàgg yàgg ndax ñoom kenn ku nekk xam ne nañoo ñoo jumaa ji ak daayira Moukhaddamatoul Khidma yàgg na kon sëñ Fallou ñu ngi lay sant di ko jaarale ci yow mu jëm ci sëriñ Aliou Thioune sëñ Ibrahima Gueye mi directeur programme bi ñi nga xam ne ñoo yor wàllu diine ji ñoom ñëpp sëñ Abdou Khadir Samb ñoom ñoom ñëpp Euh, kenn ku nekk xam ne na ñoom dañuy jël signal fii dañuy lëkkaloo ak euh, MKTV ak CMT di jël signal bi ci waxtaan yi ak naafila yi ak yi nga xam ne euh, am na yëpp. xarim Gueye ni ko doon bokk na ci liggéeyu communication ren incha allah dana benn journal boo xam ne dañ koy amal. boo xam ne lépp loo xam ne mooy mooy xew-xew yi am ci biir koor gi. moo xam waxtaan yi moo xam naafila yi moo xam ndogu yi ak gan ñi fi ñëw ak lépp lu fi xew daal incha allah. am na benn journal boo xam ne danay jàll par ñaari fan wala par ñett boo xam ne incha allah nit ñi danañ koy man a jariñoo waaw am na ay interview tamit ci képp koo xam ne ñëw nga fii di di di di dund si liggéey bi incha allah dana am ay interview tamit yoo xam ne euh, danañ koy danañ koy jël su ko defee nag kon ni ni niñ daan liggéeyee ak site internet yi ak euh, xam nga ne site yi nekk Touba wala site Mouride yi ñu cëpp moom benn lañ mm-hmm. noonu tamit lañ lañ leen tàllalewaat loxo incha allah ci mboolem waxtaan woo xam ne ku bëgg direct wala nga bëgg a jàllale euh, tàllal nañ la loxo ànd ak yow ci liggéey bi ci noo ko bëgg rek incha allah ci signal boo xam ne daal euh, neutre lay doon noonu tamit la ñuy tàllal loxo télévision yi ak rojo yi rajo yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ak yi nekkul ci dëkk bi ñëpp tamit waajal nañ leen euh, am na benn groupe boo xam ne incha allah waxtaan wu noppi rek son bi dana ci daal di dugg ci saasa soo bëggee direct tamit boo jàkk boo boo boo jokkoo ak sëñ Abdou Khadir Bousso dana la jox benn lien boo xam ne da mën a direct yow ci sa rajo te dana leer nañ da nga am son bu baax incha allah jël nañ ay matuwaay ngir son bi gën a gën yokk gën a gën a amélioré wu ba nga xam ne fu waay mën a nekk daal da nga mën a jariñu bu baax a baax euh, sëriñ bi ci biir sant gi nga xam ne ñu ngi ko doon sant euh, sëñ Aliou Thioune noonu la ñuy berale cant sëñ Cheikh Aliou sëñ Cheikh Aliou Mbacké waaw si Cheikh Aliou Mbacké xam nga ne rajo jant bi ak ceeñeer ak rajo mi am yëpp ak leer ga dañuy direct mboolem waxtaan yi yëpp at mu jot ni ko si Abdou Lahad sant léegi ci wàllu social noonu la ko waa communication di sant tamit ci wàllu communication kon liggéey bi ñor na ko ci fànn yëpp ni ko noonu tamit Samsudine Ndiaye kenn ku nekk xam na ne moom it euh, ma ngay liggéeyee fecc RTS waaye liggéey bi ñor na ko lool lay ñëw di jàppale Eh, ñi nga xam ne ñoo yor wàllu audiovisuel bi caméraman yeeg eh, ñu yor yooyu yëpp di ci taxaw taxawaay bu rafet rafet moom it ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm. kon dal suñu fàllu ci wàllu communication incha allah noppi nañ ci waajtaay yëpp ngir fépp fu ab jullit nekk fépp ñu man laa jox lien bu leer boo xam ne eh, dara du ci aju nga mën a jox jullit yi fu ñu nekk ci àddina bi bañ jot waxtaan yi waxtaan yi jàll tamit képp ku ko bëgg soo ñëwee fii indi foo koy sotti dañ la ko sottil nga tisaaro ñi ngi sant sëriñ Fallou Silla sëriñ Fallou Silla euh, journal bi ma doon wax léegi moom moo koy présenté di ku jàmbaare ci liggéey bi moom it am ci pësteef lool alaaji Fallou Silla alaaji Fallou Silla ñu koy sant bu baax di ko gërëm kon su ko defee daal ci tënk sëñ Abdou euh, ak ñoom sëñ waa communication loolu mooy seen waajtaay ci koor gi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm sëñ Fallou bisimilah jërëjëf xam ji li daa mel ne nee na bu sañoon naafile gi boo nee ci garaasu Dakar di ko boo nee garaasu Daara di ko def day mel ne loolu écran yu mag na ñoo ko man daa mel ne écran yu mag la bëgg yoo xamante ni bii ñetti xeble yëpp da ko fay samp ñuy direct naafile gi nga xamante ni bii boo fa nekkee di ko gis waxtaan yi ñu koy def foofa te loolu yomb na ci àdduna bi yomb na it murit ci sëñ am na écran yu mag yoo xam ne boo ko sampee daanaka day mat ay 4 mètres nangam ñuy dund koor foofa nga xam ne waxtaanu koor gi ñu munta ñëw ca nekk garaasu daara Jolof danañ ko am ñi nekk ci gaarasu Daaru Mooti danañ ko am ñi nekk gaarasu Dakar danañ ko am ñeenti xeble yi fenn fu ci nekk liy génn ci ñumaa ji def waaw ci ci biir loolu tamit sax am na loo xam ne war naa koo dolli ci wàllu communication muy télévision yi war a jël war a ñëw ngir jël def reportage ñoo ñëpp tamit waajalal nañ leen képp koo xam ne da bëgg ñëw def reportage ci wàllu ndogu yi wala ci waxtaan yi wala ci ni ñu liggéeyee ñoom ñëpp it wala journal bu bëgg a bind <laughs> ñoom ñëpp it soo ñëwee ay ndaw a fi yoo xam ne incha allah loo ci bëgg waaye buñ làmbatu déedéet maanaam bul ñëw rek di def sa liggéey te ñëw laaj ko fi fi nga xam ne fi la gënee ñu jox la xibaar yi wér ñun ñëpp yi ñu ngi leen di tàllal loxo euh, ni ñu koy defee ci événement yëpp moom daayira bi moom nëbbul dara waaye li ñu bañ daal mooy nga làmbatu macha allah ah, jërëjëf jërëjëf euh, daa mel ne sëñ Maxtaar kan xam naa ren dafa soxlawut ay kaas ndax daa mel ne tudd kap coppe acité yi na am na cent vingt cent lan cent vingt mille cent vingt mille coppe acité waaw 4 millions jaay nga ko ngiri kaas kon day mel ne soxla ngay kaas ak i tarmos macha allah kon xam naa ne waxtu wi jàtt nañu euh, xam naa dañuy ñaan sëñ Ibrahima gi tey dama nekk na émission ëttu murit léegi kon muy doon une heure dana doon une heure de plus ndax koor gi mooy waaj a dëgmal daa mel ne sëñ ji leen koy lijjanti kon damay jox sëñ Abdou Lahad euh, su ko defee mu jéem a tënk ñëwaat ci sama laaj ma wër xam naa ne tey moom saa lay doon waaw su ko defee sëñ Maxtaar kan tëj jotaay bi kon sëñ Abdou Lahad bisimilah. waa jërëjëf sëriñ Fallou ñu ngi dellusiwaat di santaat yàlla bu baax. may ñooy agsi fii ci liggéey bi waaye kon mbokk yi li dégg ngeen liggéey bi ni muy demee euh, junj nañ leen ko ci rapport bi ci tàmbali bi waaye kilifa yu baax yi itam tas nañ ko gën a yaatu gën a leer donte nag ci télévision lañ nekk nga xam ne waxtu waxtu dañuy tënk ba li ñu war a leeral lépp xëy na duñ ko mën a leeralee ni ñu ko bëggee waaye nag junj nañ ci junj yoo xam ne ku nekk mën na cee jëlee bind xam ni liggéey bi di doxee kon nag euh, ni ko sëñ Abdou Lahad waxee léegi ci tàmbali bi dañuy dellu rek ca fañ waroon a tàmbalee mooy ne jotaat nañ ndigal ci sëriñ bi ni ki démb dem nañ fa mu yeesalaat ndigal li wax ne ndigal li daf koy gën a yeesal daf koy gën a yokk nañ ci gën a góor góorlu gën cee taxaw lu mu mën a doon itam nañ fexe ba lépp na dolli ko waaye bu dara wàññi ko macha allah waaw euh, loolu daal mooy li nga xam ne moom la santaane moom la digle rafet nañ njëg njort lool ndax lépp looy tàmbale tàmbale ko ci digalul Serigne Touba sotti tege alhamdulilahi rabbil alamin rek lañ ciy séentu te moo cay am itam kon nag ñu ngi sant bokki jullit yëpp di sant bokki teelu bi yëpp te di leen séentu ci liggéey bii di leen ci xaar parce que yéen ànd ak ñoom di tàllalaat nag suñ loxo ñëpp képp ku ci jàppoon daaw wala képp ku amoon yéene jàpp ci daaw tem rawoon la ren it occasion baa ngi nii weer wi nag weeru promotion la promotion nag fu ne la amee solo waaye fii Sëriñ Tuubaa la ëppee doole kon nag nañ ci gën a góor góorgóorlu bu baax gën cee jàpp gën cee taxaw ba liggéey bi ñu amee ko nii li Sëriñ Abdul Ahad doon wax léegi itam muy ndigal li nga xam ne Sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadul taxaa jox na ko waa daayira Masaalikul Jinaan bu Touba Toulouse. mu jëm ci forage bi war a nekk ci euh, Touba Bakhiane te yéen ñëpp ngeen xam jafe-jafe fa amoon ci wàllu ndox te muy foo xam ne tam ñëpp ko soxla ndax taalibe bu bu génn àdduna foofa la xel murit yëpp di nekk ci mu jëm fa muy barab boo xam ni doonul armée li Touba doonul armée Sénégal waaye armée internationale la ñëpp fay ñëw te ñu ñëw ñëpp yaakaar Serigne Touba rek moo leen fi indi dara waru fa manqué te nun ñëpp foofu la ñuy mujj kon war nañ ko bàyyi xel bala ñu fay àgg taxaw ci ku fa ñëw la mu laaj lépp nga man koo am te doo ci sonn loolu nag moo tax sëriñ bi joxe ndigal ci forage bi forage bi nag ñoom collecté woon nañ ba bëggoon ko def mini forage boo xam ne xëy na doon na tolloo ak seen doole waaye sëriñ bi itam ci ak yaatalam moo wax ne nañ ci boole ñi ci war a bokk ñëpp ñu boole ci Tuubaa xépp ndox mu neex bi nga xam ne moo lëkkale mboolem boroom xam-xam yi ëpp xam-xam ci wàllu ndox ci senegal ñëpp nekk ci biir di ay experts yoo xam ne ñëpp ay taalibe Sëriñ Tuubaa lañ yu am yéene bañ ñëwee nag ñoom fekkoon nañu def seen gëstu ci ndoxum dëkk bi ak fenn fu ne nab ya fa nekk ak yañ ca mën a jariñoo ak yañ ca mën a ak la ca ak la baaxul bañ dikkee xool xam ne fi ñu bëggoon a bënn forage bi foofu ndox ma nekkul ndox mu gën ndax bari na ay jafe-jafe te boo ko doon bëgg a traité sax traitement bi du yomb ñu ne nag léegi kon nañ ko yóbbu ca ndox mu baax ma loola nag day yokk li sëñ Moxtaar waxoon léegi boo yokkee sa sa sa càkkutéef mhm. faaw nga yokk sa dépense mhm. tax na moo yóbbu forage bi jëlee ko ci moyen de dix millions yóbbu ko ci ba plus de soixante millions loolu nag ku ne xam na ne jafe na seer na waaye nag Sëriñ Tuubaa xamul jafe ak jamono déedéet tey Serigne Touba xamul jafe-jafe jamono. te taalibe yi Serigne Touba it ba jamono gën a jafe lañ gën a am yéene ci liggéeyal Serigne Touba kon nag liggéey boobu itam nañ ko bàyyi xel. Touba Toulouse Masalikul Jinaan ñi ngi ci jiitu Serigne Mame Mbène Ndiaye waaye nag ndigalul Serigne Touba day tànn kenn sant ko ko. waaye kenn kookee nag lu caagin moom moom moom digal li waaye yëpp moom mm-hmm. Mm-hmm. kon nag fu mu nekk ci adduna bi na ko bàyyi xel te jàpp ci bu ci kenn xeeb dara lu waay man rek na ko ci def ba forage boobu mën a taxaw te xam ne kenn defalu ko kenn kenn ku nekk boppam la koy defal ndax xamuñ kañ lañ ciy njëkk a sang xamee su kañ lañ ciy njëkk a sang ñi cay def ñëpp dañ te kenn ku nekk jàpp ne yow yaay kañ ciy njëkk a sang ni nga xamante ne bi noonu ngay soxlaa waajtaay rek na nga ci jëfee noonee kon nag ñu ngi ciy séntu ñëpp di gërëm ñëpp di sant nag waa Tuubaa xëpp wax bu neex ndax liggéey bu rëy lañ ci def itte ju rëy lañ ci def jàppalee ko Touba Masalikul Jinaan bu Touba Toulouse waaye jàppalee ko itam Muqaddamatul Xidma mi nga xam ne ñoom la leen sëriñ bi boole loon ngir ñu jàpp ca kon nag ñu ngi sëriñ Fallou ñu ngi wàcce sunu kàddu ci turu sëriñ Afia ak turu biram bi yépp di sant kilifa yi nga xam ne nag ñoo jonjoo liggéey bi jiite commission yi kenn ku nekk fu weeru rajab teroo rek loo doon def bàyyi nga ko ngir waajal liggéeyu koor gi dootoo nelaw nelaw yu doy dundu njaboot sa lépp da koy jox jumaa ji ngir waajal liggéey bi ngir liggéey bi mën a aw yoon mën a tegu ci yoon ñoom ñii ñëpp fu ci waay mën a nekk ci tukki wala ji sa yitey bopp ba weer rajo jo da nga koy nag ñëw ngir liggéey bi mën a sotti kon nag ci turu bureau exécutif bi yëpp ñu ngi leen di sant ñoom ñëpp ñoom ñii fi nekk ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom lañ seqal liggéey bi ñuy président commission yi ak ñi jiite itam kuréel yi ci biir liggéey bi di seen i ñoom ñoom ñëpp ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm ci liggéey bi te di leen gën a soññ nag ñu gën a góorgóorlu te xam ne yoon wi mooy wii ñu jaar rek mooy të takku ngir liggéeyal Serigne Touba te bañ a geesu loo fàtte ko yaakaar ne bis bu ñëw booy séntu rek te la sa ngërëm nekk danaay faral di wax ne nag mag ñi fi gis te di leen naw ngir lu ñu am rëy gu mu rëy ak bari gu mu bari ak takku gu mu takku ba gis ko adduna bépp di ko gis xëy muñ xëyaloon Serigne Touba daje ngërëmam wala ngont muñ ngontaloon Serigne Touba dajal ngërëm dajal ngërëmam moo leen may la ñu am ku xamoon ngont moom nag ban bis lay doon wala xëy moom ban bis doon da koy dàkk ginnaaw xamoo ko nag fu fu doon da koy dàkk ci lu ne di ko dàkk ci fu ne di ko dàkk ci ku ne loolu mooy tax ñu am ko kon nag jërë ngeen jëf yàlla nañu ko teewee ndeke di déwén te liggéeyu Ibrahima bi ñu am ci ndaw lu ndam lu kawe ndam luñ ci mas a am barke Cheikhul Xadim wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu aleykum salaam di julliwaat ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di feddliwaat sunu yaakaar Cheikhuna Ahmadul Xadim di ñaanalaat Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na ko fi sunu borom gën a yàggal gën a doole ak wéram yàlla na yàlla nangul ñu sunuy jëf ak sunu jaamu yàlla yàlla na yàlla kàttanal ñu ba ñu a dugg ci weer wi ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin ci am ci ngërëmul sëriñ doon waxtaane lu jëm ci waajtaayu euh, koor gi kon mbokk yi liggéey baa ngi noonu ñëpp ko gisandoo daaw 62 million et quelque lañ fere woon ci koor gi te ku ne xam ne yoon wi amul tànk ginnaaw ña dogu si woon dana indaale seenub xarit wala ka dogu si woon dana indaale waat doomam kon jàppal ne mbooloo mi day dolliku te bu mbooloo dollikoo nag xaalis dana dépense dana dolliku te ku ne xam ne ne woon daaw ren jii la gën a seer la nga doon jënd suukar saakub suukar bu daaw da da nga ko ko ëpp ren la nga jënd woon tàndarma daaw da nga ko jënd ëpp lu ko ëpp ren kon nañu daat gaaw yónneewaat seen i addiya ñu defal leen ko ci liggéeyub jumaa ji numéro téléphone bi la 77 686 13 13 77 686 13 13 mooy numéro Wave bi ak Orange Money bi waaye numéro bi nga xam ne ko am laajub diine ci nga koy laaj mooy 77 678 ñoo ngi sant ñëpp di leen gërëm di bala ak ñëpp di leen baal ak di wax wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.